moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show Euh, moo leen di may seen émission bu mag bi lee mu di Taku Show ñu nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi saxoo di seetaan seen télévision bu mag bi lee mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix troisième numéro de la semaine ci seen émission bi lee ñuy sargal képp ki nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel fii ci Solution TV ci studio El Hadji Sid Lamine Niass Niass Koumba Abdallah ñu daal di ci li nga xam ne rek moom moo di Omar Bun Khatab chroniqueur victime du net ak son bu bu baaxee alaaji moo du ñu dem ko sargal di ko nuyu ko nga xam ne rek moom moo di maa jigéen Diop di ko ñaanal jàmm yal na yàlla fëgg boppam Omar Bun Xataab Gueye nuyu naa la. maa ngi lay ziar bu baax euh, Souka di la fay di nuyu ñëpp mhm. euh, di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu mhm. bu baax mi ñu may wér ak sago. Mhm. mën a teew. di yow tamit di la ziar di ñaanal di la nuyu yow tamit di nuyu Boubacar comme ni ma koy defee. di ko wax joyeux anniversaire waaw di ko ñaanal mu wér. Ah. waaw màgg gàmm gi seeti woon naa ko ñu koy mm-hmm. ñaanal bu baax a baax ku baax la mm-hmm. ku baax la maa ngi koy ñaanal jàmm di nuyu Assane Mesere sama xarit Assane Mesere mu maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ah? baax xaritu Mbacke Sylla di ko nuyu bu <laughs> bu baax a baax di nuyu Meng saa saa tamit euh, mu sëñ Sidi mu sëriñ Abdoulahan Mbacke ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu sëñ Sidi tey bu ñaas di mm-hmm. nuyu moom Cheikh Sambaka waa Géejawaay Kër Masaar rek waa Ndar ak yëpp waa réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu. di nuyu nag El Hadj Mbacke Sylla Serigne Mbacke Sylla. Mhm. wala Mbacke Sylla nu nu neex rek wooye ko. ah dem demaat kay. <laughs> ah kon El Hadj kay. waaw kon ñu koy ñaanal rek suñu borom. Euh, yokk ko wér waaye te am mbégte bu baax a baax. Euh, dalal ko tey jii. Mm-hmm. Mm-hmm. la Ndiaga Mbaye doon wax daf ñuy dal man bu ma da dalalee nitu média. Mm-hmm. danaan ndaanaan dem seeti ndaanaan. ndeysaan wallaay waaye moom moom ndaanaan la ñun nag suñu ndaanaan wóoruñu. waaye mooy moom ndaanaan la te nangul nañ ko ko bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax euh, ci diine ji nag ko noonu actualité. maanaam teg na ko li ma booba ko doon wax benn dajee Tiwaawan rek mu ni ma. lu gën a jafe ci journalisme la la suñu borom may mooy culture générale mun a wax ci lépp. ma ne ko aw ma xam-xam mais damay déglu borom xam-xam yi rek. waaw bu ñàkk ne bu yàggee ñu am xam-xam. mais loolu aussi nawee noonu ko Mbacké Sylla bu baax a mhm. baax. Euh, te li ma gën a neex ci moom mooy nangul gu mu nangul Oustaz Alioune Sall. loolu moom dama ko mhm. nawee. Oustaz tamit fi mu ko teg nangul gi mu ko nangul. Mhm. waaw Sénégal li fi gën a jafe mooy diwo ànd dëgg la te ñoom dañ ko réussir yàlla na yàgg te sax. allahumma amiin nañ doon waaw fi nga duggee neex na man dama ko suivre ba démb barki démb moo ko Francisca ne euh, muy émission bu neex sax macha allah macha allah yàlla na baat bi wér ci kanam tuuti Omar daal ñëw dalal la euh, damay chaque jour damay kontaan ci ànd ak moom ci émission bi de. muy koo xam danoo yàgg mu nekkoon sama mm. fidèle auditeur daal ma woo di ñàkk xaalisam. FM mm-hmm. Sénégal lu ma portaat rek waaye na wa <laughs> sëppee ma bu ma ko waree bu ma ko tegalee jasaaka rek mu ah. daanu donc nuyu naa la Assane Mesere chaque jour nag damay kontaan di ah, ànd ak yow ci émission bi yàlla sedd na ko ah, sant yàlla bu baax yow it am mbégte contentement di toog ak yow ndaanaan bu mag nga wax dëgg yàlla tey senegal yi kontaan nañ si yow ajaratu suka wax dëgg yàlla sa liggéey rafet na maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Alaaji Sanjog Mbeng di ko nuyu moom Omar bun Xattaab Guèye ñu ngi koy siyaare baax di ko ñaanal jàmm di nuyu oustaz di ko wax ni ko bala ñu am seede si moom daal dañ ko tëcc ba émission bi jeex ba ñuy tàggatoo doog wax ni ndaanaan la mais boo xëyee wax ndaanaan la ne day yaakaar ni tëcc du am kon oustaz ñu ngi day nuyu di nuyu oustaz Alioune Sall bu baax. di nuyu bu baax di ko ñaanal donte. Mm-hmm. alaaji saa njóogu dafa taxaw lànk ni di bi si diine yi na ko def benn mais na ko def yu baree bari ndax moom diine dong ko ñor moom oustaz Alioune Sall na woote nit ñi di ko wuy si mu leen di nàmpatal si yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di nuyu <laughs> euh, euh, sama xarit bi oustaz Maodo Faye mi nga xamante ni réunion Palestine yi sax xam na ko da koy waxtaane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di ko ñaanal jàmm réunion yëpp lépp ak xeex bi lépp moo ñu koy leeral da ngay jot audio yi yëpp Mm, oustaz Maodo wax dëgg yàlla ku biir la si histoire Palestine ak ñoom seen. Mm. est-ce que duñ ko yóbbu kon Palestine nuyu ñu Nicolas bu baax a baax. Nicolas Nicolas ndeysaan. <laughs> ñu ngi <laughs> leen leen gërëm di nuyu kilifa yi yëpp. Euh, mhm. di nuyu soxna i Kebe euh, bu baax a baax. waaw ñu koy nuyu waale moom soxna Momi Kebe ah. ñu koy lu bëree bëri macha allah. Mhm. Euh, jërëjëf Assane. Mhm. am amatina solo xam nga yow chaque jour damay bëgg rek ci ak yow. donc ma koy nuyu nag kooku nga xam ne rek moom moo di soppee Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Alaaji nuyu nan la méng. sugaa ñi ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow <clears throat> di dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ di mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu ngi mu yàgg bi lool te ànd wér di ko ziar wér nuyu sëriñ xaadim ne ca kër gaa njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu nañ monsieur Lo di ko nuyu di ko ñaanal jàmm mhm. sunu tonton la. di ko mm-hmm. ñaanal waaye di nuyu bu baax ki nga xam ne moom la ñuy wax maman Dieynaba Fall. di nuyu Omar bun Xataab di am ci moom mbégte kontaante waa di dell rek di wax ni tey dégg nga li Alioune Tine wax ci prison yi mu nekk lu metti lool donc nit ñi <coughs> ñu ngi ñaan pour ñu gouvernement bi daal di delloowaat eh, mbir yi na nga xam parce que metti na trop. vraiment ñàkkum ndox. boole mm-hmm. kook feebar wagg am fa. loolu nekk loo xamante ni lu metti la. vraiment nekk lu doy waaw donc loolu metti na trop nee nañ depuis six jours fi mu toll nii ndox amul voilà di nuyu nag bu baax Oustaz Mbacke Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm waa di kontaan ci yow bu baax a baax parce que Omar Sànq dafa sàq mi sama lañ Euh, mu nekk loo xamante ne bi lu am solo la. sa diggante ak Oustaz Alioune Sall mu nekk diwo bu extraordinaire. vraiment macha allah. na nga xamante ne bi noonu ngeen koy defee moom vraiment benn la ci Sénégal amu fi. waaw donc loolu moom maa ngi koy seede. di wane nii am nañ ci mbégte lool lool. aussi tamit dalal la ci plateau bi. dégg yàgg nañ lay suivre di la bàyyi xel. aussi tamit euh, ngay def lu am solo ci réew mi yàlla na yàlla mottali. di nuyu Baye Assane Mesere saay saay bi nga xam <laughs> ni moom <laughs> képp ku muy joxeñ rek di la taqal damay leer ni kooku taqut waaw parce que ku <laughs> ku takkut rek lay takkal waaye ku takk moom soxlawu ko day fekk ku takkut dara mu ku tàmbali koy takkal <laughs> ba mu la yàggalee jéem a takkal yàgg na waaye ba léegi amu ci ndam <laughs> macha allah su ko léegi yaa goog jaajëf Mbengue euh, jërëjëf euh, Omar Bun Xatab Gueye donc dañuy dem fi nga xam ne rek moom moo di régie daal di ñëw ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Omar Bun Xatab Gueye ci lu ay di ñàmbat mu dalal ganam Omar borom lu ay di ñàmbat di la ah? ziar bu baax suka tey eh, nga dalal fi ndaanaan ah, ñu dalal Oustaz Mbacké Sylla macha allah Oustaz ñu bàyyi la nga nuyoo jërëjëf wax la comme li nga wax Oustaz bi nan la ko waxee tafadal tafadal jërëjëf ah, sukra la <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Omar maa ngi lay fay nuyoo maa ngi lay nuyu eh, di nuyu eh, ñi ñuy seetaan ñëpp ci biir réew mi bitim réew am naa mbégte lool ci ñëw ci palaato bu yanj bi nga xam ne dañ dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne li ñu ci raw bariwut dañ koy topp saa su nekk ndax yàlla dogal mooy suñuy soppee dañ fee nekk euh, léeg-léeg ngeen invité suñuy soppee waaye ñi fi teew ñëpp itam doon suñu ay soppee euh, seede yi Omar doon wax léegi defe naa ci alaaji Sanjoogu la yell ndax moom mooy suñu mag ci wàllu wi Euh, saa njoogu mooma ak saa njoogu mii yëpp euh, ay jàmbaar lañ mm-hmm. euh, <laughs> waaw saa njoogu moomee waaw moomee nga xamante ne waaw moomee nga xamante ne waaw kay daf ñu daan wétali waaw nga xamante ne ne am na nuñ ko doon xoole waaye saa njoogu mii nga xamante ne bu asan lëntalee <laughs> waaw lëjël a lëjël ba mu lëj oh, oh. mu jubbanti ko ba yëpp tegu ci yoon yooyu yëpp ak njàmbaar lay tegtale moom itam ñi ngi bëgg ci moom ci yu baree bari nag ci yu baree bari ci ay qualité am ci mm-hmm. fidélité maanaam fidélité Eh, fii ci kër gi mhm. waaye ci njàmbaaram goo xamante ne war nañ koo wone mhm. eh, ci góor góorgóorlu ci média di wax parce que lii ñu tiim di micro mhm. dafa dansé lool ki jàpp ne jekku na ko rek kooku la nar a wor eh, moom nag yàlla nga koy susuraal yal na ko yàlla yokk ba nit néew na lu muy wax nit lu ko naqari wala lu ñu naan saa njóogoo ko fi waxoon loolu nag lu mat a bàyyi xel la ñoo ngi koy nuyu baax a baax di la nuyu yow itam soxna Suka <coughs> di nuyu di nuyu Njoxo Mbóore <laughs> mooy eh, muy sëñ Assane <laughs> ñu ngi koy nuyu baax a baax moom itam eh, maanaam ci ruube yeeg yëpp rek voilà di kontaan ci doon seen gan di nuyu sëñ Omar moom itam bu baax a baax di rafet lu taxawaayam ak eh, liggéeyam ak ak pertinence am ci ci côté bi nga xamante ne moom la féetewoo ci émission bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, waaw kon oustaz ñu lay gërëm bu baax jërëjëf waaw comme fi nga duggee nii wax dafa jafe te ngeen di wax ci lu jafe ci loo xam ne tey jii bu réew mi taxalikoo ci fu bari ci loolu la jaar mooy politique yéen ngeen nekk ay oustaz ñu xame leen daara ji ngeen tàmmaloon yàlla nee na yonent bi nee na ngeen xëy rek dugg ci di wax ci politique est que lu yomb la. déedéet yombul nag waaye jafewut itam parce que itam euh, dafa am rek sew-sew bu ci am xam nga olof yi dañuy wax ne tàmm laago la bu fekkee dañoo tàmmoon ne buñ nee ab oustaz rek moom li ñu xaar ci moom mooy oustaz dama doon julli juum nan laa koy defaree. wala oustaz ku gént wax nangam wala oustaz damaa damaa damaa am doom kaay tuddal ma ko bu ñu xëyee gis ku ñu tudd ne imaam la wala oustaz la muy wax ci tolluwaayu jamono dañ ko naan li ngay bëgg def yombut ndax bu ko nit ñi tàmmut a dégg euh, boo waxee lu arrangé wul nit danaan kon nitu diine ki na yem palaasam mm-hmm. waaye su fekkente ne lu ñu tàmm euh, lu ñu nangu la dañuy xam ne loolu mooy rolu lislaam maanaam rolu diine dëgg-dëgg teqalewut mbirum àdduna ak mbirum diine ñaar yooyu ñoo ànd li ñuy wax fas lu daw lu ana diin euh, maanaam teqale wàllu politique ak wàllu diine bi mu xewee yàggut xam nga boo delluwaatee ci histoire ci taarixu l'islam ki daan nekk chef de l'état moo daan nekk kilifa diine gi tàmbalee ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi jógee Seydina Abubakarin Siddiq wuutu ko moo nekk amirul muminin lool mooy président de la république waaye moo nekk ilimaani jàkk ji itam moo jiite waat lépp itam loolu moo mas di am ñu dem ba mu yàgg nag bi laïcité ñëwee tàmbalee ca France ak réew yam tàmbali Eh, ñu gis ne diine ji na yem ci lii li des ci wàllu àdduna na donc ñu réglé ko nii loolu nag ñun jiguñu Sénégal damay faral di wax ne laïcité bu fekkoon am mbubb la moo xam ne téyeer bi da koo tiim mu nekk ab tisi réew mu ne dañ koo war a natt ñoom ci misir bi leen jot tegtalewut ne laïcité ba am ci France far force moo war a am Sénégal wala Amérique nañ jégge liberté moo war a am fii ñun ci suñum réew lépp lu ñu fiy def te yaakaar ne buñ ci seppee loxo nitu diine wala ku naan yàlla nee na yorent bi nee na danañ ci am ndam jàpp naa ne duñ ci am ndam mhm. maanaam delloosi ko ci ñoom ci njàngat mi nga xam ne moom lañ ciy jàngat loolu mooy rôle bi nga xamante ne nii lool la xaar ci nitu diine dëgg mhm. mooy mu wax nit ñi li tax ñu jubook seen borom waaye wax leen li tax seen àdduna jag mhm. ndax alxuraan ñaar yooyu yépp la boole ci benn aaya wabtaxi fi ma ataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad dunya yàlla nee na na nga góorgóorlu ci fàggu li nga xamante ne moom nga yóbbu alaxira waaye bul fàtte sëb cër ci àdduna nit nag mënta jagal ak jaamu yàlla am te diineem jagut bu fekkee réew mi establut nekkoo ci sécurité boo feebaree doo faju boo bëggee liggéey doo liggéey boo bëggee jënd mu seer nan ngay mën a julligee kon kay da ngay régler loolu ba am kaaraange gu wóor bu ko defee nag mën a am daluk mën a jaamu yàlla loolu moo tax ma jàpp ne ñaar yooyu kenn waru koo tàqale xam ne yéen des fois fu ngeen ni mënee ñi daan wax nekk ay analyse ak yooyu maanaam yéen daf ci am règle yoo xam ne yéen doo leen ci dugg maanaam da ngeen wax seen axulaay taala rek ñoo teg ko léegi nag seen dugg ci wax ji naam am na ñu leen ci jiitu doon politique ak yooyu mais toog ci médias yi nii di assumer di ci wax dafa ànd ak avènement wu Sonko lan moo jur loolu. Sonko la wala tombe la rek bu waral ay gaaf. xam naa ñenn ñi mën naa doon ci ñoom tombe ñenn ñi mu doon Sonko mënumaa waxaaleel ñëpp maanaam kenn ku nekk ak la la la la poussé ci am mbir am na koo xam ne day seetaan ay wax waa ji wax lu ko tax a jóg loolu day am Ousmane Sonko moo leen euh, yee ci yu bari am na ñoo xam ne tey bu ñu toogee di wax ci ay impôt wala ñuy toog di wax tey ci ci ay wàllu fiscalité wala ñuy waxtaan ci yenn yi yu ci baree bare ci discours Ousmane Sonko lañ ko jëlee parce que discours bi ñu tàmmoon a dégg ci politique ak bi mu indi daa bokkut maanaam laayi fam yu bari yooyu ak sorteem yu bari yooyu daf ko doon wax ci làkk wi nga xam ne ñu bari ci réew mi dañ koo dégg ba noppi mu jege leen loolu nag dafay attirer nit kuy bàyyi xel euh, maanaam ci nit boole ci itam politicien bu mën a taxaw ne barab ba ma doon liggéey def naa fa fukki at ak nangam waaye jëluma fa lu ma moomut dama jàpp ne képp kuy jàngale diine te euh, te ngay wut te ngay wut njiit ci wàllu jub ci wàllu jikko boo déggee ko wax wax ju mel noonu wax jooju mën na laa attiré léegi am na ñoo xam ne loolu mën na leen a tax a jóg am ñoo xam ne it leneen mën na leen cee tax a dugg moo tax kon kenn ku ne ak façon bi nga xam ne moo ko ci tax a dugg. Euh, kii dafa xam àll balaa may jox sa àll kii nu mu tudd Nicolas des fois ma gis ngeen dugg ci yeneen yoo xam ne du laal Sonko. mais waxee ci nangeen ngeen ci waxee du ñàkk ne da wax jooj day arrangé ki jur actualité bi tey comme Amadou Ba mais nit ñi des fois nit leen di gisee maanaam day mel ah gars yi ñu ngi soppeeku gars yi ñu ngi lii de. Mm-hmm. yooyu nan ngeen koy dundee. waaw xam nga nit ñi moom. xam nga wax nga li nga gëm ci Sonko mais boo ko waxee ci keneen yenn saay mën na la jural waaw xam nga mm. euh, sëñ Abdoul Ahad da doon wax ne Serigne Sanjogu da doon wax ne xam nit seen ko doyu ci. maanaam seen nit muy wax ca télé ba rek wax lu favorable ci saa njóogu nga ne ah gars yi dañoo soppeeku dañ koo jox dara loolu bokkut ci maandu ndax yow fi nga toll ba naan waa ji normalut moom mën naa mu toll ci geneen wet ba naan normal na gis nga nit jëmmi nit moo ko dëkkayam daa bari bunt yu dugg ci moom daa am koo xam ne wet gi mu jaare la muy gis keneen ka ca def wet ga muy jaare la muy gis da bokk léegi nag dangay ngay nangul nit ki li mu gis yow it nga nangul li nga gis bu ko defee ngeen ànd daje ci pénc mi jàmm door am euh, amut nit koo xam ne dafa bon 100 pour cent amut benn nit koo xamante ne dañ naan dafa bon ci lépp moo tax ñi dëkk Saalum dañ naan dafa baax ak man wala ñu naan dafa bon ak man pour baña pour bañ a baabal léeg-léeg nag ci wàllu analyse politique dañoo tàmm a gis ku koy wax rek boo daaneelee ñu ne bërëb sàngam la far maanaam boo daaneelee rek ñu naan la place kii de ah kii daal moom Pastef la far wala ñu ne kii bu dee Pastef la far ñu ne ah Sonko la faral ñoom nangam bu dee ci état bi la far ña far ak ne dañ koo jox xaalis maanaam boo waxoon lu favorable ci Macky Sall wala ci Amadou Ba ñi nga xam ne dañoo contre Amadou Ba dañ naan dañ koo jox xaalis moo tax mu wax ak moom boo waxee lu favorable ci Sonko farak Sonko ña farak Macky Sall dañ naan ustaas yi passé fii lañ wala booyi passé fii lañ lii nag Omar ku ko ragal ci pénc mi doo wax moo tax man ragaluma yooyu ki maanaam ka ma séen naan fee la far man xam naa moom nag lam jàpp affaire am la que seen ne fee la far ëllëg it kooku xam na man li ma jàpp man xam naa ko mais li ci am solo mooy nit ki daal li muy wax na ko wax ak conscience am bu bu tëddee nelaw ndax asgoor amul njëg gis nga ki amul njëg ki am njëg ne mën nañ laa jënd waaye nag ki amul njëg mooy ki nga xamante ne lim li muy wax da koy wax ginnaaw bi mu ko xoolee ba xam ne lii moo ko doy mu wax ko wax ji ni mu posé woo bu paree dem toog Ousmane Sonko moom ci dëkk bii yaakaar naa képp ku fi wax dëgg ci politique ñun la moom nga faral damaa yaakaar ne daana ci dëgg nag. waaw damaa man daal man daal man daal man daal man daal su ma juumut dafa ne ci dëgg ndax bu ma déggee imaam ju xutba wax ci bonne gouvernance même bu fekkee Omar ibn Abdou Aziz la doon waxtaane bu noppee ñu ne imaam bi Pastef la boo génnoon tey ne dund gi dafa seer facture yi courant yi dafa seer dañoo war a góorgóorlu ci nangam boo daanelee ñu ne la Pastef nga faral ma man a a bañ damay wax li ma gëm buñ ma waxee ne ma Pastef nga waa Pastef mhm. jërëjëf euh, mhm. la kilifa ga doon wax rek nee na xam baax na ñu xam la baax na waaye xam sa bopp moo gën moo gën <laughs> euh, euh, wax ji am na solo man damay wax ni man damay wax ne yéen moom da ngeen da ngeen a a yeex a yegsi ci mbir mi ci géew bi parce que bi ngeen ñëwee ci géew beeg léegi maanaam dafa am lu bari loo xamante ni bi dafa dafa dañ xam naa ni nag looloo tax fi mu toll nii intellectuel yu baari ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mbirum kii bi parce que ni ngeen koy waxee non seulement day leer te it euh, la ngeen jàng xam nga intellectuel moom du déggu tubaab <laughs> donc doo doo doo doo nekk ñoom dañu defe ne njàngum tubaab rek mooy intellectuel te loolu moom léegi moom commencé ngeen wax dëgg fa yàlla Euh, complexe boobu nga xam fan wéeroon ngaay moom defe naa ni génn ngeen fa te loolu moom defe naa ni njariñ la ci réew mi bu baax a baax a baax a baax a baax léegi nag man li nga xamante ni bi moom laa la doon léegi xam nga à chaque fois ki lay wax ne la yow fii nga féete dafa la bëgg a mm-hmm. pour nag la foofu pour léegi yow dootoo wax sa xalaat li ma maa yow expliqué nga ne ne kenn mënu laa tere mm-hmm. wax li nga xam ne moom léegi yow mais am na ñeneen ñoo xamante ñu ngi leen koy waxee ci yeneen façon maanaam xam nga nit ki bu ñu la koy répété di la ko répété beneen saa yi mën am na ñoo xam ne ñi ngi commencé mën nañu daw sax bañ a waxati li nga xamante ni bi moom la ñu wax dëgg gi nga xam ne léegi ñooñu yow lan nga leen di wax carrément parce que nit kuy jàngale man dama jàpp ni da war a jàngale te am na yoo xamante bi waroo ko sóor mais am na ñoo xamante ni bi léegi-léegi sax da ngay gis ñoom dañuy wax sax di ko wax naan lii sax mën naa koo wax ba noppi ñu ne ma Sonko nga féeteel xam nga yooyu yaa ngi mel ni luy xaw a moytu. yu mel noonu ñooñu lan nga leen de lu am lu am solo nga wax parce que itam ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy téye ni di ko tënkee dafa bari façon yu ñu koy defee. Euh, ndax bu ñu la koy wax tam koy miim léeg nit dana am lu mu bëgga a wax te du ko wax. waaw wala sax mu yàqi waxam. man du man bëgguma ko yàqi waxam maanaam di wax naan damay wax rek waaye waaye rek diw taxut may wax jëru ko <laughs> yow yow waxal boobaa yaa ngi sóoraale ki naan la diwa tax ngay wax am na ñu baree baree baree bari ñoo xamante ne yàlla xam na ne ñu ngeen di gis ci média bi ñuy wax ngeen leen di tudde ay donga daara ñi dooni donga daara te noppi te gën leen a pertinent gën leen a xam li xew ñoo ëpp fuuf waaye tayyeel wax ju sew jooju léeg moo leen di tënk bañ mujj bañ mujj far noppi moo tax yombut xam nga euh, ñaare am pénc bu bindoo nii ñi ñi bañ ñu wax dafa am nuñ leen di jaboliser liñ leen njëkk a wax mooy déggoo déggoo comme ni nga waxee intellectuel bi jàngut jàngut waaw parce que tey am na concept yoo xam ne tey jii man su ma ko bëggoon a wax mënu ma koo prononcé mm-hmm. maanaam tey boo jàppee ne sama ñàkk koo prononcé gii dama koo xamul yaa ngi nax sa bopp maanaam li ma ci comprendre comprendre loolu ni toll waaye man aw làkk du sama limite mm-hmm. parce que diplôme yi ñuy wékk dama naan ki wékk diplôme ñu naan ko docteur professeur dama koy respecté mm-hmm. waaye dama naan dañ koo bëgg a wax rek ne ko fii nga yam bind ko ciw këyit waaye am na ko fa yam te bindaluñ ko ko ciw këyit mm-hmm. diplôme bi lu ñu mandarga rek <laughs> waaye am na koo xam ne bu defoon examen jaar fi nga jaar mm-hmm. xam lu raw li nga xam mais da koy respecté parce que xam-xamit dañuy respecté ki ko am yonent bi sallallahu alayhi bi mu tàmbulee di wax ca li nga wax nii lañ ko doon wax dañ ko doon diaboliser xam nga luñ ko a wax ab taaxuraankat c'est-à-dire bu sóoraale woon ne man damay taaxuraan dootu waxati alxuraan ndax kon danaan maa ngi wax kat waaye du ma taaxuraan waaye alxuraan ba mu jeex amut fa yonent bi miime déedéet même bi naan dafa dof yàlla dafa wax rek wama saaxibukum bi majnun bi naan moom du wax katu dëgg suñ borom itam dafa ñëw rek weddi ko weddi ko oyof weddi ko oyof sax la ko yàlla maanaam maanaam weddi hmm. pour bañ a jox importance am na ñoo xam ne yow fi mu ne ki naan la diw diw la faral moom daa am kum faral di léegi moom dalaa bëgg a àtte ci fi mu nekk rek yow léegi loolu bu la tardeelee sëñ Babacar Si moo doon wax ni eh, maanaam di dem ca tool ya mm-hmm. fekk ña toog ca ker ga bañ a bay nga samp sa gopp ca naaj wa di leen yedd ba jant bi so yaa ngi ñoom a yem di te ñoom ñoo la tane ndax ñoom mm-hmm. voilà voilà ndax ñoom ndax ñoom far dañoo toog ci ker gi waaw <laughs> waaw ñoom ñoo ngi toog ci kër gi ba ñu dem tool yow ngay dem tool romb leen samp sa gopp ca naaj naan leen jóg leen bayyi jóg leen bayyi ba jant be soo ngeen ànd ñibbi yow finalement ñoom ñoo la tane waaw li nekk fulla kay mooy nga dem nga dem ca tool ya wala nga ànd ak ñoom toog ci kër gi man nag damaa bëgg a bokk ci ñi dem toog ca damaa bëgg a bokk ci ñi dem ca tool ya man moom ñaari question rek laa am yoo xamant ni bëgg naa ko koo jox benn bi gis nañ ko moom mi oustaz si Sylla oustaz Al Amin ak oustaz ñoom Baara Ndiaye ñoom oustaz yi Pastef yi li muy bañ ñuy àndandoo di dem si usmaan Sonko ak di défendre Ousmane Sonko ak di xalab leneen ba pare bañ ne bokku leen Pastef lan ngeen fa doon wut ak lan moo tax bokk nangu leen bokk Pastef beneen bi gis nañu koo xamante ni ba bokk nañ ni bokkuñu diine mu génn àddina yow yaa njëkk a taxaw défendre li nga xamante ni moom la ñu wax ni kenn waru koo gunge kenn waru koo nangam yaa njëkk a taxaw défendre ko maslaa daal maslaal ko rafetal ko ba mu xaw a rafet nga teg si penc mi ngir xaj na ngay moytu gis nga nit ñaa ngi koy partagé nit ñaa ngi koy estaté nga topp ñooñu waxoo leen leen si diine wax kàng mais nga xaw ko rafetal ni ñooñu li ñu def baax na. waaw xaw a rafetal de baax na bu ma yëgoon te damay rafetal bu baax parce que rafetal moo gën moom euh, fu lu luñ mën a rafetal kon ma kon ma njëkk a tontu bi nga mujjee bi nga mujjee waaw bi nga mujjee muy euh, ki génn àdduna mm-hmm. wax ji daa tombe waaye man su ma sañoon duñ ko moomale kooku wax naa ñi may interviewé ne bu may wax ci masala moomu ñu jël foto ki génn àdduna def ko da duma nekk à l'aise parce que jëmmi nit la yàlla wormaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam toog na ñu yenu am néew ku faatu romb ko mu jóg taxaw ngir wormaal ko ñu ne ko kii kat du jullit mu ne leen waaye nit la c'est-à-dire ci boppam daf ñuy jàngal ñu wormaal doomu aadama rawatina nag dëkkandoo rawatina koo xam rawatina koo xam ne itam soppe waa réew mi la di nit siiw waaye nag bu loolu yëpp jàllee ci ay sentiment dañuy dellu si waat nag ci li ñu suñu suñu suñu diine jàngal ci wàllu jëflante maanaam jëflante jëflante bu rafet lislaam dañu koo jàngal ci suñu diggante ñun ñu am àq yuñ séq diggante jullit ak moroomam waaye amaat àq yoo xam ne dañ koo séq diggante jullit ak kum bokkalut euh, diine kum diine nag da caa bokk àq yam séq rek bàyyi Assane mooy ñu jëflante ci àdduna bi muy dund bépp jëflante boo xam ne lislaam may na la ko mm-hmm. su faatoo nag nga bàyyi koog boroomam loolu kay lu simple la maanaam tegtaliwul ne dañ laa wax ne la bul ko ñaanal da nga koo da nga koo rëbb wala da ko koo móolu waaye bi mu faatoo lislaama la wax ne la yéen ñaar bu doon tey da nga naan ñaar ñu bokkut opérateur lañ maanaam yow da ne ci benn opérateur téléphonique ma ne ci beneen pour bañ a def publicité nga bëgg maa may crédit xam nga loolu mënta nekk maanaam koo xam ne bi muy dund nee na yonent yàlla Muhammad doyu ko alquran doyu ko moom lee moo ko doy mu faatu nga ne ko ah gannaaw lii moo la doyoon kat nañ la bàyyi yeeg ñooña ñu taxawu la ca diine nga gëm ñun nag suñ diine fii la ñu yemloo loolu mës ci réew mi boo demee sowal faajut ga ma juddoo ca faajut ay armée a nga fa yoo xam ne ay jullit ak ay chrétien lañ fay bokk rob boo demee Casamance tey ca Ziguinchor da nga fekk armée yoo xam ne ay jullit ak ay chrétien lañ fa bokk rob man kër ga ma gane àdduna ca Sowal kër Padial gi Ndiaye sama bâtiment baay dafa defoon nii bâtiment Padial gi def nii ñun ak ñoo ñu di ay chrétien ñu bokk benn ëtt yaroo fa ba ma màggatol nii te problème mës am. ñu koy def est ce que tax na mu li waa li may li may wax ni moom dagan na. Hmm. Eh, dama lay jox dama li ñu bokk di suul noonu la. non armée li ñu bokk di suul bu araamoon duñ ko def ci réew mi. c' est à dire maanaam jullit yi mën nañu def dara te fekk na daganul aha kay ñoom euh, baal ma leeralal la tuuti mm. ñoom ñoom ña koy def foofa bu dee bu dee bu dee ne fu mel ne suwaal faajut wala faajut ci boppam problème mu maanaam espace dafa posé wu foofu mm-hmm. parce que dëkk bi ci île la nekk maanaam daruriya la maanaam lu mënta ñàkk la loo xamante ne lislaam mayee na ko kum ko amut la gënal da am la fa sës loolu mën nañ cee dugg ci lu yaatoo yaatu voilà te xamante nañ lu yaatu kon daal ngir ma tënk rek bañ yaatal foofu mm-hmm. mooy wane ne suñu diine moo ñu sant loolu mm-hmm. beneen bi ci topp nag ci Ousmane Sonko mi nga wax ne nga gis ñuy dem këram bu dee man personnellement yaakaar naa ba may njëkk a dem kër Ousmane Sonko Ousmane Sonko politique agut ba ma koy xamit waxagut na day politique maanaam ma am ku ma xam kooku xam ko loolu la ñuy wax mu nekk sama ami en ma di fa dem mm, ma di fa dem yàlla dogal ma xam ko euh, mu tàmbulee politique it ma xam ko waa léegi Ousmane Sonko moom mooy kan ba kenn du dem këram maanaam dafa contre Macky Sall moo tax kenn du dem këram su ma neexee du ma xaritoog Sonko <laughs> amul ñu xaritoog Macky Sall ñoom di ko def seen page Facebook di ko photo di fa dem eh, bu fekkoon kay wut xarit bu lay amal njariñ la wala ku lay dimbali ca waa état ba ngay dem te ñooñu fi ne am naa fa ay xarit yoo xam ne am naa leen comme ni ma amee ay xarit ci ci maanaam ci Ousmane Sonko léegi nag li nga wax ne daw ne bokkuma Pastef man waxuma bokkuma Pastef waaye jàpp ma ne waa Pastef jàpp nañu ci ñoom laa bokk nit nag mën na ma faa boole parce que li tax bokk ci mbir bu dee jënd carte membre wala teeweeb réunion wala dem ci manifestation wala bokk ci kuréelu parti wala joxe ca say xalaat wala wax ca fànn googa yii yëpp moom defuma ci benn su fekkee nag su fekkee seen combat nag su fekkee seen combat ak li ñu bëgg ci réew mi loolu moom dama cee adhéré cent pour cent ñu convaincre ma ñu convaincre Ousmane Sonko convaincre ma ci ay discours am convaincre ma ci ay position am lim fam fa muy wax ne noonu la Sénégal mel léegi léegi nag léegi nag ni muy wax ne noonu la noonu la bëgg Sénégal mel ko su ma sañoon bu subaa Sénégal mel noonu loolu keneen ku dul Ousmane Sonko bu waxoon wax ju mel noonoot su ma sañoon bu subaa débat Sénégal mel noonu. blocage bi yi di def yéen a ngi xeex di jukk mais daf mel ni eggagoo leen ci kaw. parce que ñu wax ay deux cent et quelques candidats mais daara xeex nan ba bokk ci débat politique bi ak débat public bi lu xew ñu mën ci wax seen ñu leen koy ñu dem tax ba di ko yóbbul sax ñu doon nax nit ñi fii ci réew mi. waaw euh, parce que yéen leen gën a suivre ay ñoom Cheikh Bara ak yooyu ku dem ci réseaux sociaux dina seet lu mel noonu te am na ñu fi nekkoon. jàpp ni ñoom rek ñoo am xam-xam mais lan moo waral ci ñuy ut réew mi pour gérer ko par comme parce dafa am ay modèle de gouvernance yoo xam ne yéen ci islam maanaam Omar ibnu Khattab Omar ibnu Abdul Aziz maanaam modèle de gouvernance yoo xam ne tey jii ku ko indi woon ci réew mi moom réew mi kenn du marsati kenn du joyeti parce que ñoom yooyu modèle yu baax la yéen ñi nekk ci diine ji lu tax ñëwoo leen di laaj réew mi pour que loolu ngeen ñuy jàngal ngeen ñu mënal ñu ba mën ñëw dund ko lan moo leen bloqué ba deux cent et quelques candidats gisoo ci daara. waaw li ñu bloqué lu bari la mooy réew mi ni ñu ko ni ñu ko rëddee te xam nga li yaa ngi wax ne li ñuy def nii léegi la xew mais fi mu ne boo waxoon tey programme boobu nga wax. am na yoo xam boo ko waxoon tey li ñu leen njëkk a wax mooy réew mi du état islamique euh, maanaam du république islamique euh, état laïque la. yi am na yeneen laxas laxasaan yu ñu ci laxas ci wàllu parti yi. ku mënul bind français waaw mooy mooy yooyu nga wax yëpp laxas nañ ko ci ba nga xamante ne mën naa bañ a demee noonu. mais man itam damaa am benn affaire bu may seetlu mooy bëgguma rek ñu jàpp ne euh, ki ki nga xam ne moom la ñu xoolee diine day tudd imaam wala mu tudd oustaz. Hmm. gis nga candidat yi fi nekk nit mën naa tiim maanaam programme mu nit xool ko gis ci programme bi loo xamante ne ni boo faloon ab imaam it du am programme bu euh, bu gën a baax boobu problème bi problème mu tur la il faut ñu dajji tur yooyu maanaam maa col gi colu diine la tur wi tur wu kii la kii nii ab imaam la kii ab oustaz la déedéet li am solo mooy doon nit ba noppi am programme yu nite yuy jëmale réew mi kanam loolu ku man di doon même boo doonul ab jullit te fas ko yéenee teg ci réew mi imaam yi bu ñu seen bopp na la imaam yépp waaw léegi lu li ki doon wax Omar Abdou Aziz nga xam ni modèle bi nga xamante ni moom la yoo xam nga parents yi yéen dañ leen di génne ci wàllu politique te da ngeen koo xam parce que dafa am yoo xam peut-être ci ñi ñuy sukkandiku ak ñu ngeen di sukkandiku bokkul parce que ñoom ñu ngi sukkandiku ci ay euh, kii nu mu tëdd fii waaja euh, non non ci kii nga xam ni mooy ki gën a siiw rek Machiavel ak affaire yooyu comprendre ci ñoom la ñuy sukkandikoo ci yooyu te yooyu nekk na yoo xamante ni boo seetee ca biir ak caay-caay rek loo jëlee ak noot askan wa fexe noo leen kiiwee boo seetee model bii nga xamante ni bii tey moom la moom ngeen di expliquer à chaque fois maandu teg gi nga xam ne moo nekkoon ci Omar Ibn Abdou Aziz ak ni nga xam noonu la doon doxee nga xam ñi ngi doon wax ne sax bu mësaana taal sondel di waxtaan ak yow ci wàllu kii bu fekkente ni bii mbirum état bi jeex na day fay sondel bi taal sondel boppam bi nga xamante ni loolu nga gis ni maandu te googu nga xamante ni bi euh, doon nañ ko wane yooyu vraiment expliqué ngeen ñu ko ba nga xamante ni bi dugg parce que li Omar wax comme ñoo xamante ni bi tamit bon am nañ pensée boobu quoi am gis-gis yooyu tamit nga xam dinañ mën a taxaw di wax yenn façon yooyu xam nga peut-être yéen oustaz yi man jàpp naa ne ñu ci bari foofu lañ gis Ousmane Sonko ba tax sax ñu méngoog moom ay discours ba tax tey nit ñi di leen ko féetale est-ce que nekkul ni tamit li ngeen li ngeen jàng moom ngay li nga xam ne moom ngeen gis ci euh, Ousmane mooy mooy li nga li nga wax noonu loolu laay dëggal euh, xam nga loolu ñuy wax bonne gouvernance euh, loolu rek mooy wax ji ñun dañoo am ay théorie yu neex baat yu rafet yoo xam ne bu ko waxee rek nga ne ay ca waaye bu ñu jëfee rek nga ne acam maanaam loolu nag mooy li nga xamante ne moom la misaal moom nga tudd ci Omar ibnu Abdul Aziz boo jàllee ca la ko jiitu nga jël ku ne Seydina Omar ibnul Xataab hmm. wala nga jël sax ku makkat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu doxalin ci nit ki xàmmee li nga xam ne moom la moom ak liñ ko dénk euh, c'est-à-dire bu ñu bu ñu nit ki bu ñu ko falee man man bërki démb bi ma gisee ñu naan nangami téeméer ñoo jël ay parrainage yi ko wuti dama ne Sénégal bu doon jeeg ma ne jar na yaakaaru ma ne ñii koy ngoro ñëpp dañ koo nopp am na ñoo xamante ne lekk alala ma ko tax a jóg ak nax ko waaye ñoom nopp si wuñ ko waaw parce que parce que itam waaw bu parce que ñun doomam yi sonn nañ waaye ñii ñëw di ko per njaayu ñëpp wax dëgg yàlla yaakaaru ma ne dañ koo nopp léegi nag euh, ki nga xam ne dafa xàmmee loolu gis nga li ngay wax ni saa gis naa ko sax ci ay go euh, maanaam ci ay ci ay kilifa yu ne ci ci pouvoir bi ñoo xam ne tey ay directeurs généraux lañ ñoo xam ne tey bu fekkut ne ci liggéey lañ nekk duñ dawal maanaam oto bi leen état jox xam nga da nga koo misaal ci sondeel kii ne fay sondeel bi taal bii boo ko doon misaal tey mooy koo xamante ne maanaam privilège yi nga xamante ne jumtukaayi état la du ko jëfandikoo ci ay besoins boppam maanaam li mu war a jëfandikoo ci lool loolu lay jëfandikoo ñun ñun bu ñu amoon lool sax sant ah bu fekkoon sax da koy jëfandikoo sant waaye ñun doo ci yem mais tey fi mu ne Macky Sall la ngi waaj a publier nii liste gouverne gouvernement su ma defoon ministre bu gannaaw subaa su may wàccee rek day fekk man réglé naa sama problème man man mosumaa gis da ngay gis ah, euh, ku ñu fal ministre rek sa lépp soppeeku waaye waaye nag secteur bi ñu la dénk moom dara du fa soppeeku cest kon am na kuy gagné am na kuy perte li ngay wax nii nag dafa feeñ nag ci discours yi dafa feeñ ci discours euh, ku mel ne Ousmane Sonko mi nga wax maanaam fëlaguñ ko ba xam dana ko defam déet mm-hmm. waaye discours bi moom saf na sàpp ak njub saf na sàpp ak maandute saf na sàpp jege askan wi léegi ñu bëgg loolu nag am nañ droit ne discours bi neex na ma ah. ëllëg buñ ko bu yàlla dogaloon ba mu falu def contrôle ñu def ko neneen la ñuy def ñeneen ñi rek waaye discours bi moom wax dëgg yàlla mel na ni discours njub maanaam saf na ko sàpp ñeneen ñi comme ñuy ut rek non bëgguma tudd tur mais ah. non non xam nga ñeneen ñi fi ci liir seen i programme la ñu war a toll waxaguñ seen i ñu ci bari waxaguñ seeni i programme déedéet waxaguñ seeni i bu dee voilà bu dee bu dee ñi bokkoon ci saxaaru Macky Sall gi ñoom <laughs> yaakaar naa ku bëgg changement moom doo ànd ak ñooñu bu fekkee waaw parce que waaw waaw parce que parce que waaw parce que parce nag saxaar gi moom bopp bi soppeekuwul chauffeur bi lañ bëgg a changé te ñun fii fii yëf yi toll dañoo soxla ñu ne chauffeur bi freineel chauffeur bi freiné ñu changé chauffeur ba noppi tourné direction bi parce que fi ñu jëm baaxul <laughs> euh, euh, damay gis ni que euh, si sa wax ba tey da ngay wax dangaa bokk ak fi nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko loo xam ne bëgg-bëgg la parce que Ousmane Sonko day nit ku dëggu Ousmane Sonko day koo xam ne dafa nekk mooy nit koo xam ne dafa nekk ci euh, foo xam ne benn institution boo xam ne ci doon liggéey te mosu cee lekk dara lii mosu cee lekk dara nga dégg boobu wax chaque jour ngay wax boobu discours buñ ko xoolee ba xool dana Ousmane Sonko nga waaw ba tey baax la mais man waxuma ko yow yaa ko wax yow yaa ko xool dégg ci loolu aji wax ju ne bu waxee ku nekk la nga koy dégg parce que ni nga am na keneen am na mm-hmm. keneen mii kat politique dafa gis ne Ousmane Sonko li muy wax dëgg la mu ànd ak uh-huh, moom uh-huh. parce que bañ koy falit dafa am lu ma gisoon ca moom bokkoon ci nga xam ne damaa dem wateel ko waaye weesuma ci woon wateel ko Ousmane Sonko miit du ma ca weesu wateel ko am na politicien bu ma masoon a toogal dama ko ne ñett yi tax nit defal ko benn politicien mhm. mooy du ma la wax ne am naa mbooloo mu ma lay indil ndax man awma mbooloo mu may jox kenn du la wax ne danaa ànd ak ci sa mitin parce que awma jotu teew ci sa mitin mhm. du la wax ne la la wateel ndax bu watee jotee laay dem wateel ki ma neex mhm. léegi nag ku déggee ci loolu nag diw daa faral Ousmane Sonko faral Ousmane Sonko du gàcce ci réew mi parce que nit ku dëggu la nit ku jub la ak maandu la fi wone euh, euh, dëggu la fi wone sa gis-gis ci Palestine bi nga xamante ni moom la Assane doon junj léegi parce que euh, lu musta am moom defe naa ni am na waa i laa boog nii mu amee moom man moom damay wax ne bon wax dëgg fa yàlla affaire bi moom euh, am naa ci mbégte lool parce que dama daan dégg rek duma nañ ñu du dal nañ ci sunu kaw dal nañ ci kaw Palestine dal nañ ci kaw Palestine mu nekk loo xamante ni bi lu ma daan naqari la euh, situation bi nga xamante ne bi xew na ca Palestine mbégte mi nga ci am bari na jullit yu ko ci am mm-hmm. waaye bett gi mu bett Israël it noonu la bette ñu bari ba bette ko jullit yi am na sax ñoo xam ne benn réaction mënaguñ koo def ndax daa mel ne eh, koo xamante ne li nga daan dégg rek mooy néewal nañ doole waa Palestine te loolu moo mas di am Israël di leen tooñ tooñ gum tegut fenn di leen jaay doole jaay doole gum fenn àdduna bi di seetaan ñuy rey ci ñoom lu bari di nangu seeni suuf eh, yu metti yooyu daa yàgg am waaye nag dëgg mooy mujj eh, waa Palestine it bàyyi mësuñoo bàyyandiku euh, defe naa ne euh, taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxaw mhm. damay gis média internationaux yu bare bari di leen tudde sax ay attaque terroriste nangam nangam ma ne xanaa kon terroriste bu ndaw bee fayu ci bu mag bi waaye ñun dafa am koo xamante ne xam naa la ñuy wax ne américain bi ba muy rey africain bi tëral ko di ko rendi africain bi màtt ko Euh, américain bi teg paaka bi ne ko civilisé woo quoi euh, parce que moom daa jàpp ne ko civilisé mooy bu ñu lay rendi da ngay tëdd rek waaye waroo màtt ci lay rendi daal <laughs> waaw loolu loolu loolu mooy loolu mooy li ngay gis rek ci taxawaayu euh, Israël ak ak ki nga xam ne mooy mooy Palestine néewal doole gi yàgg na lor yi yàgg na waaye àdduna day dox njàngat mu xóota ci am nag saa njóogu ci situation boobu mhm. situation la boo xam ne dafa am yu ci yu ci laxasu ci wàllu politique mooy boo xoolee Israël tey dañoo am mbetteel ba noppi Palestine daf leen a ci àdduna bi. parce que dañoo jàppoon ñun ci àdduna ñëpp dañu wax eh, maanaam Israël doole ju ñu am ci wàllu renseignement. Mhm. ba yeneen réew yi sax ci wàllu renseignement généraux dañ naan système israélien yi lañ jël. Mhm. ñoom ñoo def nangam ci wàllu armement. dañoo jàpp ne ñoom ñooy ñi nga xamante ñi ci gën a xereñ lañ ci wàllu taxawaay. Mhm. bu ñu ba lu mel nii mën a dal ci seen kaw ak bett gi mu leen bett. Euh, ak li ci dee dee ci ak li ñu ci jàpp te li ñu wax ne moo ci dee ci wàllu arme ci wàllu euh, communication guerre la rek. Hmm. waaye mën naa ëpp loolu. li ñu wax ne moom lañ jàpp mën naa ëpp loolu loolu dafa nekk benn humiliation boo xam ne. Hmm. dal na ci seen kaw. Hmm. waa xamaas yi nga xam ne nag ñoom ñooy ñoo def riposte boobu. ñoom ragaluñ ko cest diir ñoom préparé nañ. li leen conséquences yi. moo xam court terme bi la moo xam long terme bi la. lépp préparé nañ ko ba nga xamante ne nii parce que ñoom ragaluñ dee problème bi mooy ragaluñ ah, ragaluñ loolu voilà waaw yahud nag dafa ragal ah, dee waaw moo tax loolu <laughs> yahud seen ragal dee gi du tey yàlla wax nañu ko ci alxuraan <laughs> ñoom ñoom dañoo yàgg a ragal dee maanaam niñ dañoo bëgg dund ñi gën a bëgg dund ci àdduna mooy yahud yi moo tax ñoom boo ci rayee kenn day mel ne tukkal nga àdduna mhm. fi mu nekk nii dañuy wax ne réew mi ëpp ñu fay génne mhm. mooy Israël ñu ngay génn samp seenu xel di daw ndax jàpp ne àdduna day tukki seen kaw léegi nag euh, mbir bu demee noonu mbir la moo xamante ne taxawaay yu bare bari da ciy am dafa ci taxawaay mooy daan dégg bi seen Lamine Niass di nekk ci Sénégal bu yi amee mu woo press bi jël ambassade bu Palestine teg ci wetam ñu gis yeneen organisation islamique yi jël ko def ko débat parce que débat bi tamit dafa am communication boo xam ne nga àdduna boo xoolee ñëpp ñu ngi wax pour Israël même sunu médias yi fii dé médias yi bari dégg naa leen ambassade Israël lañ yor di ko jox kàddu mi méttiwul mais pourtant ambassade Palestine mi ngi ko bàyyi pale léegi nag ñàkk taxawaay boobu daan am taxawaay bi daan am démb te amatul léegi maanaam lan moo xew ci. waaw euh, jërëjëf ñaanal bu baax a baax sëñ Sidi ñu ngi ko tuddee yal na ko yàlla yokk yërmande. ca Nations Unies ne. waaw Sénégal mooy xaritu Palestine. waa yoon mm. parce que diggante jullit ak mbokkam ak yu baree bari yoo xam ne séq nañ ko ci ay relation waaye bii nag mën naa wuuteeg yeneen yi mën naa am noppi gi du nekkut ak sedd. waaye dañoo dafa fekk ne yi yiñ daan taxaw di woo ambassade bi mu ñëw ñuy def ay manifestation yooyu da daan fekk dañoo dal ci seen kaw rey ci ñoom yu bari ñu leen di massawu ak di leen jaale tey nag bu ñu woowoon ambassade ba mu ñëw dañuy sibile te euh, te teel na c'est-à-dire comme comme ci stratégie wu guerre lañ nekk ñoom ñee def nañ attaque ñi ñiñ dal ci seen kaw ñooñu la ñi leen yéene jàmm di masawu ñooñu la ñuy taxaw ñeneen ñi ci des xëy na peut-être ndokkeel leen ak gën a laxasaayu ak gën a taxaw rek lañu xaar ci ñoom ñàkk leen na ah? islam bu bees dafa am Sénégal. l'islam bu bees. waaw maanaam loo bëgg a wax laaj laaj boobu. Hmm. mooy euh, da ngay dégg à chaque fois fu kilifa yi nekk ci réew mi demee ci këru diine yi cérémonie officielle yi nan leen duñ fi nangu ñu indil ñu fi diine ju bees ñun suñu lii tarixa yi lan fi nekkee yooyu loolu tax may laaj loolu. léegi nag jamono ji ñuy wax loolu ngay gis débat boo xam ne peut-être que jamono yi islam soxlawu ko. parce que réew mi ñun ñi dul jullit danoo xajoo ak ñoom ba di leen invité ci lu ne mais ñun jullit yi suñu biir suñu ñàkk ànd dafa des parce que da ngay gis ku ñëw di dugg ci détail wasifa est-ce que mën nañu wasifa ci lii keneen dugg ci li entre ay jullit est-ce que débat boobu soxla nañ ko Sénégal fi ñu toll. Hmm. pour yow ak yow lan moo jur débat boobu ci ñoo xam ne ñëpp danoo bokk doon ay jullit. waaw li ko jur moom mën naa am liberté liberté ci wàllu wax mën na koo jur léegi ñëppay wax. waaw waaw mais bu àndut ak moom liberté bi laa jiital liberté liberté bu liberté dafa am dafa am fu mu yem mhm. bu ma tàllalee sama loxo bi fi mu yem fi la sama liberté yem li ci topp liberté Baye Assane la su ma ko giyee damay dugg ci ay àqam voilà léegi nag ñun nag suñu liberté bu ñu ko wutul yemukaay liberté di wax lay doon kenn ku ne day wax ci mbir nu mu ko neexee euh, diine yàgg naa am ay li ñuy wax ay wuute ay wuute moom dafa yàgg ci diine wuute ci yenn yi ñii dégg ko nii ñii dégg ko nii waaye am na laytaay bu ñu am boo xam ne ñun ñëpp dañ caa dëppoo ba noppi loolu moo taxoon loolu mës sa indi génn féewaloo ci suñ biir li xew léegi nag ci réew mi loolu mën na koo indi maanaam liberté ci wàllu wax jooju kenn ku nekk di wax man tey su ma waxoon loo xamante ne nii jaaduwut yal na ma ci yàlla musal ci diine ki ma war a tontu du ma tontu man naa am ki may tontu moom àggut sax fi ma doon waxee au li mu may tontu moo gën a garaaw li ma wax léegi bu boobaa dara dara duutu réglé ti pëcc xoo lay doon mhm. xam nga ñiy jàngale dañuy wax ne ndox mu ndox mu tuuti mënta dindi sobe da koy gën a tasaare rek waaw ki takk sobe ba koo raxas day am ndox mu bari waaye bu yoree tuuti ndox day gën a yaatal sobe si waaye dindiwu ko ah <laughs> sobe fépp lay nekk fu ñu ko taxal rek mu takk fa <laughs> waaye yow arrêté waaye yow <laughs> léegi léegi sobe si nekk fii. ok voilà bu boobaa bu boobaa loolu loolu loolu quand même ndox mu bari moo koy dindi bu fekkee diine ju bees nag ndax dafa am wala dafa amut bu fekkee kàddu ministre de l'intérieur la ministre de l'intérieur ci ñu war a ëpp information ci réew mi la bokk. c'est-à-dire fa mu toog lam tiim bay wax ak lam gis bay wax moom moo ko xam man xamuma ko waaye wuute ci diine moom am na ci réew mi am na lu ñuy tuddee ñuy attaqué kilifa diine yi léeg-léeg am ñoo xam ne kàddu yi ñuy wax amul benn jullit bu koy rafetlu am kàddu yoo xamante ne kàddu yu wuute ci masala la bu boobaa nañ bàyyi boroom xam-xam yi tereetee ko ni ñu ko war a tereetee teñ jàll ci leneen wax nga dëgg réew mu toll fii ñu toll suñ dara réglé wut nga xamante ne bu doon togg daa xaay waaye ñurut gaas bi fay léegi nag nga bàyyi ko fa ñun ñuy xuloo ci ñàkk fayda yoo xamante ne amaluñu benn njariñ ay détails loo fi jëmbat mu ñor bu ma xëyoon ne sax yàlla sama kër la ñëwoon démb ñëpp ne ma waaw kay am ñu ne déedéet am ñu ne waaw loolu euh, amal gaam la boo xamante ne fi réew mi toll soxlawuñ détails yooyu dëgg-dëgg waaw jërëjëf xanaa euh, ma sant leen rek kontaan ci waxtaan wi Eh, wax dëgg yàlla bu jubee loolu moo nekkoon sama yéene eh, bu amee ay njuumte nag doomu aadama moom eh, moom léppam du mat waaye ñun wax dëgg yàlla bu dee ci langue politique gi képp koo xamante ne boo amee jàmm Sénégal am jàmm yéene nañ la nga am jàmm koo xam ne boo amee ndam Sénégal am ndam yéene nañ la nga am ndam koo xam ne nag boo jekkee dangay ngay fuuyu yaag sa mbokk yaag say mbokk yàlla boo jekk bu dee da ngaa jote jekkit yàlla na nga jekkati <laughs> ndax nag ñun itam soxla nañ li ci réew mi maa ngi jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf si la euh, Sud FM ah, ñu koy jaajëfal bu baax euh, di nuyu Nicolas di ko féliciter ah da ngeen révolutionné lu bari yokkul maanaam ku yokkul da ngaa wàññi mais da ngeen yokk lu bari ci espace médiatique bi di nuyu ah, euh, di ko di ko wax ne yi muy wax yëpp nag waxuma ci dara. di nuyu sunu sunu goro <laughs> ah El waaw ah, su ñu koy nuyu bu baax di nuyu Baye Umar Gueye sama turandoo. waaw ah, ñu ngi koy ñaanal jàmm di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp ah kontaan nañ bu baax daal oustaz moom tey bu dee mbégte rek. waaw am nañ ko jërëjëf. jërëjëf alors jërëjëf Omar Boun Khatab Gueye jërëjëf oustaz Mbacké Sylla di la wax tamit nga nuyu Francisca Diafoune day sunu soppe tamit trop vraiment dañ ko sopp loolu dañ ko yàgg topp ci li nga xam ne moo di émission yi mu daan def RTS donc day suñu soppi ñu koy ñaanal tamit moom it yàlla na yàgg gën a wér voilà di leen ñaanal yàgg ànd bi yàlla na yàgg ndax dioo dafa day dafa day te nit ñi dafa am ñoo xam dafa am fu ñuy déggee fu ñu dul déggee yàlla na kàddu gi gën a sax eh, yàlla na yàlla tamit wéral baat bi donc ñu dem régie daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di bàyyi Assane ci actualité du jour jërëjëf al Hadji Mamadou Diouf mu rejoindre nu kooku nga xam ne suñu soppee la voilà dañ koo yàgg sopp son yi bu nuy nan la koo yàgg sopp <laughs> moom lu ko wëndeel émission ya nga daan def bu njëkk ba <laughs> émission yi <laughs> daa réer non réeru ma nag baax yàlla non kii mooy Sukay Mbaye wax na dëgg émission yi njëkkee lay wax xam nga émission yi njëkk xam nga émission yu njëkk yi nag maag Mbacke si dañ ci daan ànd waaw nit ku disponible la. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Uh-huh. di nuyu Assane Mesere uh, maire chroniqueur. maire uh, chroniqueur waaw ah, dëgg la. <laughs> di la nuyu bu baax Adja lay fay di nuyu Boubacar suñu frère. waaw wallaay di ñaanal El Hadj Sanjoogu Mbeng mm-hmm. xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Mm-hmm. Omar Boun Khattab Gueye futur maire de euh, Kër Massar ñoo koy nuyu. di rafetlu bu baax ànd bi. ci kanam tuuti ñu dugg ci internet bi fekkaat fa ab victime ñëw teg ko fii ndax yéen a ma fa yónnee. yow kay buñ la fa yónnee beeg ah. di ko jooju lee mu di Samba Sane ma ngaleel fan Boubacar Samba sa dund gi am na njariñ Assane bàyyil bébale bi te nga ñëw ci actualité du jour. jërëjëf suka euh, amaat nañ mbégte contentement uh-huh. di nuyuwaat bu baax ma jigéen di ko ñaanal suñu borom féexal ko bu baax a baax di nuyu ajaratu biti mbub euh, tey jii nag euh, maa ngi si université yi université université yi gën a rëy Sénégal gii wala université rek. waaw université bu Ziguinchor si kàrtu na yàlla day tijji. dina tijji waaw. bu ndar day tijji. macha allah mais université dakaar bi Cheikh Anta Diop bi dañ koy tëj rat continuer ko kenn du ko laal. loolu daal moo jaaxal Sénégal yi bu baax a baax a baax lan moo tax université bu Dakar kenn du ko tijji nit ñi dem jàngi. loolu am na loolu loolu garaaw na di. garaaw na kay loolu loolu nag nañ def nag ñ fa bëgg a jàngi ngi wax Sénégal yaa ngi wax lan moo tax université bu Dakar duñ ko tijji lan moo si laxasu lan lañ si def lan la lan la loolu lañ bëgg a waxtaanee kenn ku mhm. nekk indi si xalaatam. Mhm. lan moo tax nangu ñëw tijji université bu ndakaaru bii songi bu jóg. waaye xabaar bi nii nga ko waxee nii la dem nii la ma ko muudu waxee ci dara wàññiwuma ci dara. Ah? ah tey noonu la demee waaw noonu la ma muudu wax. Ah, kon ni mu daan def daawul day yokk moom nee na moom du sos waaye dina yokk. waaw ah, waaw eh, d'accord kon dañuy yëpp ba mu des ba bu Ndakaaru bu Cheikh bii di su tijji. Euh, defuñu détail bett lu tax ñu ne duñ ko ubbi. waaw defuñu benn détail da nga ci rek. est ce que doxu ñaxtu yi fi amoon booy kii woon. <laughs> waaw amoon na nag ay ay ay ay yàqu-yàqu yu fa amoon. Hmm. yoo xam ne mën naa am moo sabab li tax loolu am. Hmm. mais jàpp ma ne université bu Dakar li muy recevoir ci ay nit. Hmm. ci ay xale yu fa war a jàngee yoo xam ne fa lañu war a mottalikoo seen li des seen njàng. jàpp ma ni dañ ko def ci maa tey mën na am. travaux yi parewul ndax la fa yàqu bari na bu dee ci wàllum lekk sax foofu mu profité waale tinu ñi nga xam ni dañ fa nekkoon di jaay dama ci am sama benn mag boo xam ne ci màggal gi laa doog a yëg ni ndeke manifestation yi ba léegi liggéeyul ndeke fa la amoon restaurant doon jaay bi affaire yi amee laalaale leen ba léegi fii ma wax ak yow dafa xëy toog këram loolu nag kon Assane bu amee mën na sabab li tax ñu ni ñu ci wàll yu baree bare waaye dama foog ne ba am benn kaaraange goo xam ni mën ak saa dafa am fu ñu àndoon moo bi ñu seet Cheikh Bara sax defe naa après boobu ma gis ay endroit yu bare bari dafa xaw a jóg jege côté palais biir dakaar lu mel ni ministre de l'intérieur ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. bi ma ñëwee ma am ku ma ciy waxal man leen côté yooyu dama gis manifestation yi doo fa gis lu ñuul lu tàkk lu kii ñun ma foofu benn manifestant du fa jege. maanaam kenn àggu fa kenn jotiwu fa ni ñu ñàkk jege palais jàkk jege sax place de l'indépendance fu mel ni université nga xam ne njàng mu kaw mi la ñuy wax fa lay jógee defe naa ne yu mel noonu bu amee li gën a jar a protéger ci loolu ca la bokk ah université ko lu ko yàq ñoo fay génne ñoo fa nekk la ah ñoo fa ne ñoo ko yàq waaw ñoom ñooy dox ñaxtu ñoom waa université ñoo ko yàq ñuy jógee fii gannaaw def dem université ñu ah, ah, ñoo yàq koñ bi. Eh, côté université côté ministre de l'intérieur bi Dakar ñooñu joxu ñax doxu ñax tuuti. waa lu ciy am mooy bu ñu amee nañu xool ñi ko yàq. Hmm. lan moo tax ñu yàq ko te bañ a def li Oustaz Mbacke si la waxoon léegi. Hmm. ku jóg di ñaxtu wala nga taal wala nga am yëglu goo def. Hmm. ñun diw la faral. Hmm. amaana kooku sax bokkul ci parti diw. Hmm. université nag loolu dafa gaaw a jóg xamul tax. il faut ñu génne politique mi ca foofu ci biir université. ndax boo seetloo. Ousmane Sonko bi ñu koy convoqué première convocation bi mu bëggee jaar université. dañu ko da ngaa a ruube booy yi. génn kon doo jaar foofu loolu sababoon li tax yëngu-yëngu am. Mm-hmm. kon suñu bëggee defar njàng mi daal nañu génne politique bi biir euh, université Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. te yokk kaaraange ga fa am su fekkee ne xale yi dafa am lu leen di dugg ba tax ñu dugg ci politique bi. Mm-hmm. ñun leen politique leen te génn te xam ne président Sall mi ak ñeneen ak ñu nuy mel jaar nañ université xëy na ay na fa am ay ñaxtu doon na fa am ay ba fi ngay jàngee fi sa xam-xam di jógee nga yàq ko bu jàng jotee doo mën a jàng loolu da ngay lor loraale ñeneen ñoo xam ne ña nga ci biir mm. nañ ci jël ay matuwaay daal asan mm. université ak feneen fu mel ministre de l'intérieur bu fi mën a nekk kaaraange gu mu bëgg a jël ci barab boobu mm. dana ko jël te nga baal ma yàq gu njëkk gi gis na ak ceetaan gu ci am muy da nga wax ci jommet démb loo xam ne bu amoon ci réew mi yu bari mën naa calmé wu Assane day def benn affaire day def benn euh, day tooñ son yi bu mhm. au lieu que son bu du bib kaso di ko fa dugal nañu woo Assane mu ñëw ñu corriger ko ni ko yow xam nga li nga def xam nga Souka mi institution la mhm. xam nga Souka njaboot am mhm. xam nga Souka li ko yaakaar ci réew mi kii institution la wala sax kilifa la bul defati li corriger ko bàyyi ko mu dem bu ko defaatee nga xam ne maa tey dugg na gis nga université ceetaan gi ci am ñun ñi doon couvrir ci affaire yi doon am nga xam ne to moo fa demoon am bu intervention commencé woon jóg kenn du yàq ba ba fay taal lu ëpp mais da bàyyi xale ñuy dem après nga yóbbu fa ay policier ñuy sànnante xeexante dañuy gën a jóg ñu gën a yàq hmm. loolu daal nañ koy arrêté Assane hmm. nañ koy arrêté tey liy sabab loolu yi ñu bañ di sa àgg foofu la soxna bu waxee euh, bun xataab noo gisee mbir mi <laughs> euh, ni ma ko gisee mooy Sénégal doon fi matériel wala doon fi batiment hmm. moo gën doon fi nit waaw doon matériel wala batiment bu taxaw moo gën doon fi nit xam nga lu tax may wax loolu mooy Balla Gaye dañ ko rey université taxul ñu tëj université bi dëj bi jeexee dama jàngiwaat te hmm. pourtant boobu ay fitna moo fa amoon hmm. euh, Fallou Sène université la deewee ba ci euh, am na ñeneen bu doon lim tey Fallou seen Balla Gaye am na ñeneen teewul bi dëj bi jeexee danoo ibbi université ñu dem jàngi te pourtant fitna yooyu tar la lu tar parce que fu bakkan rot foofu dara seddu fa woon teewul jàngiwaat nan bii ñu ne ay bâtiment lan fa taal ak ay restaurant ñu ne duñ jàngi loolu tax ma indil la ni kon doon bâtiment wala ay restaurant moo gën doon fa nit te wala fi def na fu ñuy rendee kenn fa jooy góom mm-hmm. léegi nag lan lañ jublu ci tëj université bi ibbi yeneen yi mm-hmm. mooy ñu ñu nekkal heure bu ñu xëyee rek dañuy wan ni lii priorité ci réew mi ñorul leen parce que réew dafa am ñaar yoo xam ne kenn du ko fooye loo foofoo wala nga politique politique da nga ko fay bàyyi mooy éducation ak santé da ngay dégg ki ni la waruñu di politique ci université bi te moo fa dugal politique parce que moom mi koy wax partem dafa am ay étudiants yoo xam ne ci partem la ñu ne ñi nekk ci nguur gi da ngay dégg des fois ku la wax loolu te hmm. pourtant moom mën na am ñuy politique ci université sax ci moom la ñu ëppee hmm. kon tey ji bu demee ba naan nañ génnee politique bi université kon daa am ñu fay politique ñu leen neexul parce que 88 université bi tàkk na fi 93 2000 maanaam événement politique bu mu am ba ci 2012 université day yëngu Mamadou Diop étudiant la woon taxul ñu tëj université ne bu kenn jàngeeti am njàng nag kenn waru ko foowee ñoom dañ doon wax naa ñi taal université bi da leen war a teg daan yi ay université lan ay lii lan ay terroriste <coughs> parce que fi ñuy jàngee fi ñuy sàkkoo xam-xam réyal ko mm-hmm. mais ñoom tey bu ñu tëjee université ñu taaloon loolu ñoom ñu ngi leen ciy jàppale léegi bu ne leen dana war a jàngi ci campus pédagogique yi maanaam dem jàngi dem ñibbi ci université ak ni mu sore yooyu léegi campus social yi ñu doon lekkee ak dafa fanaan ak yooyu yooyu kenn du ko ibbi léegi ñu ne yenn ci étudiants yi nan dem di def euh, cours à distance maanaam ci internet bi mais loolu mënul ne dëkk boo xam ne connection doyu fi wala ku ko soxla danga koy dem jënd wala ki dëkk ci village yi xam ne téléphone simple la yor wala fa mu ne mënu jote ci connexion nga naan ko da ngay jàng en ligne loolu fa fan la amee mm-hmm. lii lépp nag day dugg ci comme li ma waxoon dem ci courant bi dama koy xaat ci njàng mi mm-hmm. maanaam yii yëpp bu dee sénégalais am nañ jàngat yeewu mooy ñi ñu bëgg a ñi ñu jiite woon ak ñi ñu bëgg jiite te bokk ci nguur gi seen priorité du sénégalais yi seen priorité mooy ñoom ñoom nan lañuy def ba falu ak fa la jaar parce que dangay ngay dégg ku mel ne Madiambal mu ni la réew mi am na jàmm léegi ban jàppee Sonko ba léegi li mu ci jublu mooy Sonko dafa war a des ci kaso bi comme réew mi am na jàmm kay lu tax ñu ne université bi kon kenn warul dem jàngi léegi lan moo war a xew ci kanam ba ñuy defal météo di ñu li sa xaaral ni lii mën na xewi te ñoom nee nañ fi ne nii réew mi ñoom téye nañ ko seen loxo poñe nañ ko ba dara du amati kon ña jàng bi droit à l'éducation dafa am ji nga ñu war a jàng seen droit la da leen ko war a jàng ji ñu nekk ci bopp réew mi tey da leen a permettre ñoom ñu jàng ba egg fi ñu egg kon tey jii ñoom waruñu bokk ci ñiy bloqué ay jeunes yoo xam ne danoo war a émerger yéeg ci kaw li li may faral di wax naan sëñ Abdou Lahad doon na ko wax mais loolu nguur gi daf mel ni maanaam bari pexe ci bokku gën yi ñuy def yëpp pour mu mën amul njariñ mooy pexe yi ñuy def yëpp di bloqué université amul njariñ mais nan fexe ba teg réew mi ci yoon jubal nekk ci yoon bu boobaa Sénégal yëpp topp ci seen tànk parce que wolof yi dañuy faral di wax bu rang bi doxul ku jiitu la kon nan bàyyi xale yi ñu dem jàngi parce que benn moment ñoom ñëpp ñoo bokk programme bi ñuy jàng nga ibbi Thiès ibbi Ziguinchor ibbi Bambey te université bu Dakar loolu lu muy nuru ak loolu lan la doon ba ci université bu Ndar kon tey jii mooy seen priorité du sénégalais yi priorité seen bopp la léegi nag sénégalais yi bëgg seen bopp nan xam ki leen bëgg ak ki bëgg boppam mm. bu yàggatul ñu tànn mais bu dee jàmm rek lan nar nañ université bu dee nag danoo nar leneen loo xam ne dafa war a xew ci kanam ba université war a yëngatu nañ ñu ko wax mais <laughs> avenir xale yi waruñu ko hypothéquer pour des raisons politiques aussi mm-hmm. am na solo kon sukaa dégg nga ni ko Omar Gueye waxee ni réew mi daal doon fi bâtiment moo fi gën doon fi nit si la ñuy gën a respecté bâtiment yi la ñu gën a respecté euh, noo gisee université doon fi bâtiment moom dëgg yàlla doy na waar doon fi bâtiment hmm. <laughs> dëgg yàlla nekk nit a ko gën hmm. euh, dama man damay wax ni que damay fekk rek leçon yi bu wax est que pare nan est-ce que pare nan parce que lan fa lakkoon dafa rëy de am na ñu fa demoon gis ko lan fa lakk pour mu pare nii nii nii instant bi. ñu toog nii defaraat bi dinañ du peinture rek. déedéet. tojul de peinture lakk lakk pour surtout lu moo fa amoon. Hmm? waaw wallaahi lu metti moo amoon moom lu metti moo fa amoon. est-ce defar nañ ko defaraat bi baax gouvernement du ay caaxaan de waaw li may wax nii dama lay wax ni la est-ce que defaraat bi du pareegul moo tax mu ñu tëj ko nii ndax dañ fa yàq moo bari dañ dugal ci droit kiiwu droit boobu la fa yàq faculté droit dafa yàq moo bari ci biir kii bee metti woon dañ koo tëj dan ne campus pédagogique bi ñuy jàngee mën nañ ko ne di ko ibbi seen réunion bu mujj condition yi teg mais dana campus social bi war fa fanaan war fa lekkee warul am mais mais damay wax ni la est Omar baax na est ñoom seen université bi baax na ba pare bala ñu fa ay ubbi loolu lépp est loolu defar nañ ko ba pare hmm. loolu laay wax ma ne est ñoom lañ fa daan fekk ñoom élèves yi hmm. étudiants yi lañ fa daan fekk est baax na ba tey ñu ne est-ce que parce que li ñu fi yàgg dafa bari li ñu yàq étude li ñu yàq wax dëgg yàlla ci université bi mm. dafa bari de mm. te nit ki bala ngaa yàq bala ngaa def dara na nga xool parce que yaa ngi yàqal sa bopp yaa ngi yàqal keneen mm-hmm. vraiment am na solo hélas dégg nga comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp rek université bi ni ko sukaa mi mujjee waxee mm-hmm. mu ni boo gisee yee ñu tijji leen dara de saa sikkut bii ñuy tijjeegu nag dañ koy liggéey te pareegut nañ jàpp ni bu pare woon danañ ko tijji nañ tijjee euh, noo gisee wax ji ñu fi wax yëpp waaw xam nga nguur gi moom li muy def làqatuut euh, nëbbatuut wane na li bëgg li bëgg mooy jàpp nañ ni étudiants yi fii nekk fi dajaloo maas lañ boo xamante ni bii tey mën nañoo yëngal dëkk bi mu ne leen du ngeen fi fanaan tasaaroo leen dee leen ñibbi ci seeni kër <laughs> yaa ngi dégg mën ngeen a ñëw di jàng si hmm. kii jaar nii kiy jaar nii kiy jaar nii maanaam lu mën a am du ngeen dajaloo te boobaa dañuy mën a sécuriser foofu comme ni nga doon wax ne dañoo nekk ci biir. Mhm. di taal. Mhm. léegi loolu la ñu mu am. Mhm. dañu jàpp ni kon am na lu war a xew ci kanam. loolu war a xew ci kanam nag moo tax ñuy wuti pexe. Omar wax na léegi de bari pexe juba ko gën bu fekkente ni bii tey dafa am loo xamante ni dafa war a xew te yëguñu ko ñoom seeni doxalin. ñu ngi ñuy wan ni moom am na loo xamante ni bi mel na ni ñu ngi koy préparé te li doy waar mooy pareen saa dañuy <coughs> jël da gis sax mbir yi maanaam da ngay gis ni ñoom maanaam fi ñu dëkkee lekk la ñuy protéger maanaam ndakaaru la ñu gën a lool da ngay gis ni gis nga nee nañ Ziguinchor mën nañoo ubbi eh, eh, fële mën nañoo ubbi Thiès Saint-Louis ñoo ñëpp mën mën ngeen a ubbi yeen mën ngeen a doxalee na ngeen daan doxalee parce que foofu du danger danger bi Dakar lañ jàpp ni moom mooy danger xam nga dafa mel ni ñun hmm. eh, ñiy gouverner maanaam ab raison la ñuy gouverner maanaam ndakaaru daal mooy li nga xamante ni bii mooy seeni mbir loolu nag xam nga tey bu ñu la waxee ne la réew mi dal am na ba noppi yow jéego yi ngay teg dara wane wut ni dal am na parce que mën nañoo jàng nit ñi mën nañoo jàng bu fekkoonte ni bii la ñu lakkoon boobu ba nëgëni bu fekkoon ne dañoo jublu rek ngir defar ko mën nañoo defal loolu lépp yooyu yëpp du seen problème mën nañoo jàng mën nañoo def lépp parce que wax nañ ñi mën ngeen a jàng si waaye mu jàng si bi nag du ngeen fi fanaan du ngeen fi lekkee euh, bu ngeen wàccee ñibbi leen seeni kër ñaata nit ñoo jóge ci région yi ñëw mm-hmm. fan la ñuy nekk ñoom ci seen jëm bopp du am na yu bari yoo xamante ni bi yàgg nañ ko fee gis ay mairie yoo xamante ni bi ñooy jëlal uh-huh. ay dëkkuwaay seeni ñooñ ñëpp sax université bi attanu leen uh-huh. parce que nombre de personnes yi nga xamante bi ñoo fi nekk maanaam eh, da ngay gis man damay gis ni ay nit ñoo xam ni seen bopp kepp képp dong moo leen ñor mm. man loolu laa gis quoi maanaam seen yoon ci avenir u ndaw ñi maanaam décision boo xalaat yoo xamante ni bii tey mais xalaat pour lu lay jariñ képp jaral na la ma sacrifier son yu mujj sacrifier Assane Mesere sacrifier Omar mais man naa am jàmm. dafa nga ne loolu mën nga am jàmm. dafa am euh, benn kii boo xamante ni bii ñu ne Sankara Thomas Sankara euh, moo ko papaam ni nga xam ne benn kii boo xamante ni bii jaar nañu quoi noo xamante ni noonu la ko papaam doon liggéey papa ji dafa jël benn bool benn bi mu jël ñaari bool teg. benn bi nen baa ngi nii ci kaw beneen bi amul nen amul dara mu ne ko tànnal pour ñu lekk nee na sànqara daal de tànn bool bi am nen parce que nee na moom li tax mu tànn bool bi am nen nen bi parce que daal lii rarement lañ koy lekk boobu lekk gi demeewul noonu léegi bi tànnee bi am nen bi ñuy lekk papa ji ca suuf ñaari nen nekk ca ci bool bi nga xam ni sànqara gis ci woon nen papa ji ne ko moytul loo gis rek li la bët di wan nekkul ni chaque jour loolooy dëgg lendemain ñu ñëwaat papa ji tegaat ñaari bool benn bi am nen benn bi amul nen sànqara jël bi amut nen bi muy lekk fekku fa nen papa ji ne ko li nga dund démb bul jàpp bu mu tax nga influencé la ba nga jàpp ni noonu la lépp di doxee papa ji ñëwaat beneen jour tegaat ñaari bool ba tey benn bi am nen benn bi amul nen sànqare ne ko papa jëlal parce que yow yaay kilifa kër gi yow yaay ki nga xamante ni kii daal eh, lépp ci yow la war a njëkke tànnal yow bu la neex papa ji jël bi am nen sànqare jël bi amul nen waaye bi muy lekk ba ci biir mu fekk fa ñaari nen papa ji ne ko fekk yaa ngi yéene nit ñi jàmm ak lu baax mm-hmm. lu baax rek ngay am donc ñii li ñuy def boo xoolee da ngay gis ni euh, delloo wuñu xale maanaam dafa mel ni yéenewuñu xale yi réussite yéene leen lu baax est-ce que mën nañoo am ci loolu ñoom lii dogal yii ñuy jël nga xam ne seen njariñu bopp képp la mm-hmm. ndax mën nañ cee après retrouver ñoom ak lu baax foofu mooy li nga xamante ni foofu la problème bi jëm foofu mooy euh, xalaat li may wax noonu foofu la foofu laa ko jëmale donc fi mu toll ni man jàpp naa ni ñoom lii seen occupation bu fekkee ne da ngay laaj réew mooy seetal li gën ci réew mi mais bul seet li gën ci yow li gën ci réew mi mooy lan mooy ndaw ñi jàngi même bu dee ëllëg dafa am leneen loo xam jàpp nga ni mën nañ la ko coûter mais xale yi moom dañoo war a réussir loolu rek nga war a gis mais yow bul gis ni samay élection yi ma jëm peut-être mën na demee nii te bu demee nii étudiants yi bu nekkee fii mën na indi ay jafe-jafe kon donc naa sacrifier vie étudiants yi loolu baaxul ngir sa njariñu bopp voilà. ok li sax. mooy gis nga ci làmb ji feeg ñu ñuy agressé di ñu rey di jël suñu portable. seen yoon nekku ci. waaye bu dee loo xam ne dafa jëm ci mbooloo meneen ñun trouble à l'ordre public. dëgg la hmm. mi ngi noonu sukaa kon dégg nga kon ni ko El Hadj waxee rek euh, ñun ñëpp ñu déggandoo ko noonu xam naa ni suuraale leen si transport bi am na solo. Hmm. ndax ku si nekk balien bala ngaa egsi njàng mi mën na laa raw. Hmm. te it ni ko El waxee bu ñu génnee ñëpp ñu dem fanaani ñu leen suba amul jàng wala ginnaaw suba amul jàng. kenn du mën a jege foofu ñu wut si université fekk na. kenn nekku fa xañ na yu si bëri daal yaa sa nekk sa biir ñoom xam nañ ko mm-hmm. ñu ngi sant ñëpp leen gërëm lii lañ indi woon macha allah amatina solo loolu Assane Mesere ah, taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall bi meilleur chroniqueur macha allah donc ñu dem régie jëli ànd ak sponsor yi daal di ñëwaat <laughs>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 seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Soaay bu jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yi ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ma tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex Euh, jërëjëf El Hadj Modou Diouf ñu àndoon ak sponsor de lu ci mel li nga xam ne rek moom moo di kàppe yi moom sa bopp moom sa àlal yombal sa dund alaaji ah mooy transfert d'argent bi gën sénégalais yi ci seen jëmmi bopp xam nañ ko ñu roofalook moom gis nañ ni moo fi man am na ñu koy jéem a toppandoo di def en waa zéro kii waaye loolu KPI moo ko njëkk ji jinax ji njëkk a génn mooy jinax geneen ko ca topp dañ naan jeneen a ngi jeneen yooyu nag da leen di tàpp daal dee faatu amal <laughs> macha allah aywa. ak solution mi solution jàkkaarloog Walfadjri leeru jamono la voix du sans ah, mi ngi yëgal dëkk bi Sénégalais yi ci seen jëmmi bopp wane nañ mbégte ak kontaante ci boutique solution. bi nga xamante ne bi noonu lay doxee neex na leen nee nañ bi mu ñëwee ba nëgën yi loolu ñu naan tappale ak wuruj ak naxaate daa dakk pour solution daal ca kaw ca kanam su ko raadu. saxaarul xaatimul boo bëggee lu la leer rek ñëwal fi nga xam ne rek moom moo di boutique solution mi. solution wala nga woote ci numéro téléphone bi nga xam ne moom nañ naan 78. 78 426. 426 66. 66 77. 77 nga jokkoo ak soxna Aïcha. macha allah mu daal di wax ak yow. Euh, seet bi wàllum. seet non seet amul. non seetul seetul li si xaarul. voilà li si xaarul. seetuñu li si lu leer nañ la ñuy liggéey macha allah. seetuñu li gis merci beaucoup li ngeen di joxe am solo moo tax. barkalla jërëjëf mu nekkoon li nga xam ne rek moo di sponsor dañuy dem régie daal di ànd ak ki nga xam dañ koy yónnee ci internet bi te heure bu ñu koy yónnee rek mu leer nañ ñu sooy boobu borom victime di net. mi ngi noonu su kaa mbaa xam nga ne réew mi réew mi mbaa xam nga ne maa fi dàq seet. sérieux wallaahi wallaahi wal wallaahi man mën na ma gis. <laughs> kon gisoo lenn naa mën na maa ma doo gis. Ah! seet mënoo seet. alaaji li ma du ay raison. ndax raison la de. man na maa seet réellement bi daa xasee dama dul gis gis mooy sama problème yow looy seet ah ci seet ga dëkk seet laa dëkk waaw man ci seet yaa ngi nii di seet te ah? tey nag damaa dugg ci territoire boo xam ni yéen ma yónni te man ratu bi ngeen ma jox néew néew leen ma seggal léegi damay ratu rek defal lu la neex yow yow <laughs> ah, ma sànni rek <laughs> daa am benn femme bu ma gis ci internet bi xaw ma nag mooy victime bi xaw ma ndaw soosu ñu naan maam Ndiaye mooy victime bi. mais gis naa daal gannaaw gu xolleeku gu ñu taf ci internet bi ak ay tànk ak yaram wuñ mel ni yaram wuñ wësam. mu taf ko dégg naa caat ab numéro bu ñu wàtt ci internet bi ba police dugg ci. ñu ànd ak Modou xool ko dellu si waat. Eh, salaamaaleykum wa rahmatullah li tax nag sama vidéo bii Mame Ndiaye Savon yow yaa moom sama vidéo bii Mame Ndiaye Savon man mii mën nga publier woon sama numéro téléphone ba ma pelante woon la fee ca daaf maam amal yërmande ci nit ñi pourtant man ba nga ma ba nga ma tooñee ma dem pelante la ba ma la jekkoo yoon xam xamlal ne la yow numéro jàmbur ku ko tëj ku ko publier dix ans ferme lañ lay tëj kaso maam dangaa sukk jooy nga wax ma loo xam ne musuma koo nettali maam te su ma neexoon ma weer la nga yàq sama yaram yaa ma mus a jaay pilim man Touba laa dëkk ragaluma ci vidéo bi may wax nag ñaan naa képp ku gis nga partagé ko maam dangaa poñe nit ñi napp leen maam ku amul yërmande nit yàlla suñu borom du am yërmande mbaam baax nga ci bépp côté ndax mën nga def lu baax mën nga dimbali doomu aadama waaye pourquoi nga yaakaar ne yow rek yaay yor keneen du yor wala yow rek yaay am keneen du yor sama yaram dinaa taf fii nag sama yaram bi nga xamante ne bi nga koy yàqee jaay ma pilim déggoo ma sama yaram yëpp rocc ma tëdd hôpital ba wér ñu amante man ak yow ci yenn douze mille cinq douze mille nga publier sama numéro téléphone dama laa dem pelante la daaf waa daaf ñëw ba sa place andil la convocation nga dem wuy ji daaf keroog da nga maa sukkal raamal ma ñaan ma ne ma yaay dundal sa ndey yaay dundal sa baay yaay dundal sa famille su ma la tëjee ban njariñ la la amal nga dem ma musumaa ne Touba nga dëkk ndax taalibeb Sëriñ Fàllu nga nga tuddale woon ma Adama Gueye dëkkale woon ma Kaolack sa adduna yëpp di ma woo numéro téléphone ba léegi mi ngeeg man musuma koo changé ndax danga maa tooñ ma dem faje ji ko ca yoon pourtant maam yoral naa la loo xamante ne bu ma neexoon tey yaa nga ca kaso bee di lëmbeelu pelante ba ba léegi ma nga fa di tëdd retiré wu ma pelante te yoroon naa ay preuve ci yow yoo xam ne su ma neexoon ma génne ko jaay ko ay sa yeneen moroomi jaaykati diw ñu ne say diw baaxul damaa toog ne patt téew ak moom musuma xal doomu aadama man musuma waxal kenn doomu aadama ndax sama yittey bopp ñor na ma maam bu ma neexoon ma lay santa suba midi soir musuma laa woo instant bii nag bi ma daataa bi woo naa la téléphone appel whatsapp jëloo boo tax ma def vidéo bi man nga tuddee woon santale woon aadama sant sant ma Guèye dëkkale ma woon Kaolack nga publier woon sama numéro téléphone ci douze mille cinq cent ku diglu vidéo bi di nga ko xam di nga xam kan la man mii la woon pelante ba nag ba léegi ma nga fa tëdd pourtant de lu tax yow boo jekkoo nit ñi nga mel ne yow yaa moom nit maam fii ñi la ëppalee ñi ngi fii te bis bu ñu dee juróom-ñaari mètre percale amal yërmande nag ndax heure bu la nit jekkoo nga am yërmande sama kanam raamal ma ci sama kanam ñaan ma ci sama kanam keroog gàmbu cent mille francs nga ma may ma ne la damaa bàyyi xeesal maam dama daan xeesal ba weex yow yaa ma tax a bàyyi ma diwoo sa pilim sa pilim yàq ma maag yow ñu mujj tribunal gàmm bi nga ma may dama kaa mayewaat yow yaa ma a bàyyi xeesal ma def tee noir maam rek leel di la sa fecc nga yemale ko ci mboroxe mboroxe nag am yërmande nit ñi maam lii bu la jigee sax ngay mbër maam nit ñi bëgg nañ la lool waaye Sénégal na xam lan la gën a bañ mu kuy bundu xataal doomu nit doomu aadama te maam man nga def tey lu baax ba ñëpp naw la suba nga yàqal ko sa bopp maam boo réglé woon baa yëg nga ne waxuma la nekk minti milliardaire man koo doon ndax sa jom may na la ko ak sa dignité waaye régleel tuuti xam ne amel nga nit ñi àq te ronko ñi doomu aadama yi ngay génne mënu la jege noonu pourtant jekku naa la baal la su ma neexoon suba suba suba ma dem yëkkatiwaat pelante ba maag yow ñu dem tribunal jëraluma ko man du ma toroxal doomu adama maam jàngoo te publier photo jàmbur ak numéro jàmbur kirim la wala muy jeu temps yooyu la jël ah, ah, ndax ah, kama monté la ma ko ca def loon lu ci bari da ko kii moo tax Modou su ma la defatee signe rek ngir yàlla dee ma jox ndax des fois li may bëgg mu jàll day fekk jàll na ba pare Adja boo gisee ma indi ko sànq maa ngi naan la xaw ma ko ciy victime waaw maam jaay wala kii nii ndaw si day jaay ay produits mhm. yàlla nee na falaa yu xayran na xalqulaahi bu leen sopp bindu bi yàlla bi yàllaa ko wax ndaw si gis loolu mën a dem jël ay produit am yu ñu jàmb mélangé jaxase mu dem jënd ko ni damay soppi sama ber kon est-ce que Mame tooñ na ko loolu ab question la bu ñuy wax Assane bàyyil bàyyil sukaa dégg nga kon defe naa ni tooñ mën na caa bañ am ndax ba mu ñëw xam na ni lii day soppi ab der muy benn ñaareel bi mooy est-ce que Omar itam du yàq bu fekkee Mame Ndiaye daa publier woon numéro ndaw si est-ce que du yàq itamit jël jël aw yaram mu xolleeku ba mel ni lu ñuy wësam nga taf ko ci internet bi ci loo xam ne dafa laal entreprise u jàmbur waaw yi nga wax yëpp mën na koo indi mais bi may njëkk a ñaaw rek mooy données personnelles nit ki. Mhm. maanaam euh, nit ki daa am loo xam ne moo ko moomal boppam. numéro téléphone ñu bari dañ koy fooye. Mhm. mais jël numéro téléphone wu jàmbur publier ko te amoo ci autorisation borom wala dem borom defal ko boppam. Mhm. loolu moom jaaduwul. bu dee nii noonu la demee dañoo jël numéro publier ko. pour xeexam moom parce que am ñoo xam ne bu ñu bëggee guerre ak yow tamit yooyu la ñuy dugg nit ñi di la wooyee fu ne. pour ñoom mën nañ régler seen problème mais pour man ñi koy def danoo xamul boo amee problème ak nit daa am foo war a jaar da am foo war a jaar mais publier numéro pour que jaay ko askan surtout boo nekkee nit ku siw am na tey jii boo nee Mame Ndiaye Savon laa tudd xam nañ ko ci internet bi am na ñu ko bëgg am na ñu koy xeexle ñooñu boo nee dama joteeg diw jógal numéro diw kooku du noppalooti ci àddina dina dégg lu ne mais dinañ ko lu ne femme bi aussi tamit li Mame Ndiaye waroon def moom la dem defi maanaam ñu tooñ la nga dem porter plainte waaw ah. femme bi nee na ko plainte baa ngi fa ba léegi di tëdd de. waaw mu dem porte plainte bi ñu demee sukkal na ko raamal ko ba may ko sax gàmmu cent mille francs mais nee na jël ko parce que moom moo tax mu bàyyi xeesal. Mm-hmm. mu loolooy version femme bi. Mm-hmm. léegi nag wax jooju mun na ci jublu lu bari. parce que Sénégal ñun dañuy suul ndaanaan. Mm-hmm. maanaam mun nga jug doonoo dara du la tal mais buñ gisee ni sa business mi di wax ba egg benn niveau dina ci am ñoo xam ne tey jii du ñàkk ni sax dal leen yónni. Mhm. pour que ñu mën a xajamal sa business. ok waaw parce que produit bi muy wax baax nag baaxul waaw man xeesal bu baax bu bon xaw ma ko mhm. mais xeesal daa am ñu mu jikk am ñu mu jikul mhm. produit bi ngay naan. mu def ay effets secondaires yàqal la am na ku koy naan. te def ko dara te def ko képp kuy business xam nga lu mel noonu. kon tey jii moom foofu mu dugg. dem jëndi pour man mënoon na ko régler neneen que jël produit business ak ah, parce que lii mun na yàq toute une boo xam ne femme bi defoon na ko ci ay investissement ak ñoomin seen mm-hmm. loolu mun na ko yàq léegi c'est comme moom tamit buggul di maanaam nu tooñ ko mu tooñar bi parce que Mame Ndiaye tooñ na ko mu yóbbu ko ci yoon mm-hmm. mais li mu def aussi est-ce que leneen aussi mënu ko ci mais moom aw yaram wu yàqu la wane de yaram wu yàqu mais lan moo yàq yaram wi parce que daf daa loo xam ne c'est scientifique même bu dee yaramam la lan moo yàq yaram wi mm-hmm. est-ce que produit bi la mais lool docteur moo koy wax ak boroom xam-xam. Mm-hmm. waaw parce que produit boobu muy wax naan yàq na yaram am na ku ko du ñàkk am na ku ko jëfandikoo te def ko def ko nii. Mm-hmm. léegi nag internet bi dama fi gis lu bees loo xam ne dafa may na ma jigéen ñi bàyyi <laughs> mais daal dama naan jikkoy jigéen. mooy parce que dañ daan wax coow la ca pindum ten ba ay jigéen la woon ñu ne ca robine ba bi ñuy gën a nekk xale. mais loolu lañ gël toxal ko ci internet bi. ok dama koy foofu laay tëjee ci conclusion mooy waxi jigéen. Hmm. maanaam wax ju sew. wax ju sew ñoom ñaar kan mooy victime. waa ji dafa kii bi dafa jàpp ni victime la moom. ndaw si ndaw si parce que moom moo wax. parce que téléphone am lañ jël publier ko. Hmm. même Mame Ndiaye aussi mën nga ko dugal ci. victime. ok parce que business am moo menacé wu. d' accord waaw soxna si bu mu bëgg a fayu moom tamit ba tooñ. d' accord Assane. maa ngi koy wax léegi ba ngay ree du samay wax yàllaa ko wax falaa yu ran na xalqulaahi bu leen sopp bind bi yàlla bàyyi leen ko noonu jigéen ñi nag ña ngay jàmb lu kuñ dégg ñu ne ña ngay jàmb ña nga fay dem léegi ndax ki demoon ci kooku ba mu xam ne kii moom day soppi deram mu jënd ko mu dem jigut ab deram mu xollee ko ndax jaroon na wësam jël wësam mi envoyé ko ci internet bi waaw am na solo ndaw si xam naa ko kan la kii Adama Diop ki doon wax waaw yaakaar naa évité nañ ko fii bëri yàggut est-ce que ah mën na semaine waaw fii takk soo ñëw na fi ndaw si ñëwoon waaw waaw ah bon Kër Massar moom la waaw aadama ah, Diop dëkk Touba it neel Modou indil ñu déedéet lu tax xam li tax moom la ah? mais nan gay nan gay la ko tuddale woon ah? maam hmm? ma daf mel ne dañ ko joxoon beneen tur ci bi ñuy dugal numéro Adama Diop moom gay non non moom xam moom boobu xam ci ñëwal léegi nag moom comme que dëkk na Touba te Touba ñu fay tere xeesal mu daw ba ñëw dakaar gi di fi xeesal <laughs> naan suñu mu bañ sama <laughs> xarit Adama ñu ngi koy tere xeesal Touba mu daw ñëw Dakar jënd xeesal xeesal bi xam nga xees xeesal yi dafa am xeesal yoo xam ne da ngay topp règlement bi ndànk ndànk ndànk ndànk balaa jeex nga xees ah, mais am na yoo xam ne parce que ñetti fan ñeent nga xoolee ko dañ lay wax ne waaw wësam léegi nag yàlla dogal na moom wane naa <laughs> ay faar geeg wet gi nee na moom la hmm. man dama see bëgg ay preuve damaa bëgg nga jox ma liggéey bi man ma dem fa ma demee mu wokk wokk ma xool ba xam <laughs> lii non non affaire il faut ñu àtte ko ndax duñ wax nii rek mu bàyyi nii il ma dem xool man nag su ma demee xool ginnaaw geeg yooyu. ginnaaw mais mën naa ko xool man sama bët bi doy na bu ma demee xool wet yi fàmb yeeg yëpp. xool ba lépp leer oh, dinaa ñëwaat fi man la waaye la yéwén dañoo tooñ ndaw si ndax yàq nañ yaramam. waaw mais boo sukkandikoo ci photo yi kay. war nga hmm? ko mën a gëm. non photo xam nga rek baal ma dem ba àgg xoolal la ko rek dinaa la ko xoolal ba nga xam. dem ba ci aadama ni ko kiiwal wax ko liggéey bee ko laaj. liggéey bi la dinaa ko xooli incha allahu rabbi boxoon preuve ma ñëw ba fii man la preuve yi am naa ko si incha allahu rabbi jox la ko nga continuer sa liggéey. d'accord hmm. su kay. Hmm. Hmm. vidéo bi ma teg man ndax maam mooy. victime ah pas xeesal de jëmmi li xew xeesal bi parenthèse la rek mais li xew nii nit ku jël aw yaramam. dem xool yow war ngaa yow amoo mbokk. waaw moom su kaa lu muy kii nii maanaam. bàyyi ko rek bàyyi ko ba mu génn dinañ la woo de yow. ayca bisimilah. Uh-huh. Euh, kii bi gis naa ko bu yàgg. ndax yàqante der la wala. Euh, xam nga euh, pilin la. piline pilin la wax moom. piline ma yaakaaroon dañ koy naan. de piline piline. ah loo xam ne la moom nee na da koo diw ci yaramam kii moo ko jaay maam Ndiaye. waaw te maam Ndiaye moo ko fi jaay. Hmm. te nee na gis na ci ay ay gis est-ce ba mu koy jaay ba tey diw muy xeesal mu di ko jaay muy xeesal xeesal bi di rafet est-ce que mës naa toog ni maam Ndiaye lii ak lii ak lii. xam nga dama bëgg a wax. moom daw war na ma ni yàgg Mame Ndiaye yàgg na koo jaay xeesal. déedéet est-ce que déedéet bala ngaa bala ngaa diw ay. moom dafa diw mu yàq yaram mu mu yàq premier diw bi ci la yàqoo nii. Mm-hmm, mm-hmm. kon na xoolaat boppam kon Mame Ndiaye li mu ko jaay mooy loolu. Mm-hmm. ndax nee na moom moom li mu wax sax mooy man waa Touba dañuy bañ comme ni nga ko waxee mais nit ki bu la jaayee xeesal da lay wax di la Mame Ndiaye bu lay jaay da wax lu leer. Mm. danaan la lii xanaa danaan la lii ak lii ak lii ak lii. Ah, booy diw booy diw booy diw du la wax loolu sama yoon nekku ca da lay jaay bu lay jaay dafa bëgg moom ku lay jaay diw daa bëgg si bu moom mu am ci li nga xam ne rek moom moo di lu rafet satisfaction parce que boo ma jaayee diw man bu ma xeesee bu ma toogee dama naan maam jaay sa moom ma jaay mais tey mu parce que li nga génn ci bi nee na lii maam jaay ko jaay que maam jaay moo ko jaay ah, wala est-ce que tamit tamit jaxase ba mu ko jaxase ni mu ko ko waxee defee ne ko nii voilà loolu question est-ce que est-ce que mu ko def waxee ni ko defee nii defee ne ko noonu pour am ci résultat bu baax waaw parce que nag nit bu lay jaay diw dafa bëgg satisfaction ci loolu bu toogee ci diw wóor na ma ni commencé na ko ndax doo commencé benn yoon rek xeesanoo benn yoon loolu moom mosul am eh, da diw par nànk koy def nag vraiment ah, piqûre nga xees waaw nga xees pecc loolu am na voilà mais na ñoo xam ne seen teen seen teen dañoo xees ba pare ñu wutaat diw ko moo tax diw boobu day rafet boo toppee ci ñooñu ni kii li muy diwoo naa ko diw da ngay am problème parce que ñooñu dañoo xees d'accord voilà alaaji waaw tey lii laa jëlee ci internet bi daf mhm. mel ni ñaari jigéen la ku ci ne mën nga cee nekk victime suma ma juumalee mhm. waa lu indi coow li euh, numéro ndaw si la euh, kii wax ni moom la jëloon loolu indiwut coow li de xam loo xeesal bi ay ci ñëwal kon voilà ñëwal kon xam nga coow li mhm. euh, maanaam dafa am lu ko indi maanaam xeesal beeg lii yëpp dafa raconter coow lu ñaamoon ñoom ñaar waaw dafa nettali coow lu ñam lii daf ko nettali mais dafa am lu waral seen coow moom mu génn parce que mënoon na fa yam parce que demoon nañ ba dem fële ba kii jéggulu ko mu jéggal ko ba mu may ko ah, ba mu dem toog këram naa fi léegi nag bi mu génnaatee di wax dafa am lu waral kii génnaat bi di wax maanaam euh, daf ko doon yedd ci ñeneen ñoo xam ni mm. soxna si am naag ñoom problème mu wax ko ne ko nit ki nekkul ni lii ak lii ak lii man mënoon naa laa def lii bi man la nekkee nii di la nekkee nii maanaam loolu la ndaw si di expliqué. Mhm. boo seetee ci la expliqué waale yii yëpp maanaam kon dafa mel ni dafa am coow yoo xam ni. am na non coow yu keneen. yu amoon ci penc am defe naa maam Ndiaye am ak ñeneen. ñeneen ñooñu. moo tax moom mu génn. pour expliquer ko ne ko pourtant jekk woon naa la ba nga raam jéggul ma ma daal lay baal. kon donc am na noo xamante ni bi yow war nga koo comporté woo ci pénc bi mm-hmm. loolu moo indi euh, comme baal na ko est-ce que jaroon na indi ay jooyam waa xam nga xam nga moom bon moom moom li mu nettali nag moom bu ñëwee ci li mu nettali mm-hmm. maanaam jaar-jaar bi ak li nga xam ne moom la kii donc dafa war a demaat fayaat euh, Pape Ndiaye xaalis fay waaw euh, parce que li tax mu war koo fay parce que dane maam Ndiaye tax mu bàyyi xeesal maanaam xelam nekkatul ci xeesal loolu jar na fay. ki tax nga ban mbir mii. waaw war nga nee na bàyyi na xeesal. loolu moom wax dëgg fa yàlla waaw non non ba xam nga ba. Mhm. parce que tey jii am na koo xam ni peut-être dugg na ci dara am na koo xam day fay ngir bàyyi tux am na kuy fay ngir bàyyi naan am na kuy fay ngir bàyyi xeesal am na kuy fay ngir kii parce que peut-être mën nga toll foo xam ni. Euh, dem nga ba léegi retrouver wu sa bopp quoi xam pare saa yi ñu ci bari ñuy xeesal complexe la parce que dasee gëm yow ni nga xam ni noonu nga mel loolu la loolu mooy indi kii bi loolu complexe la quoi comprendre ak mu mën non complexe la moom wax dëgg fa yàlla. boo xeesee na non man damay noo xuma ku xees ah. xees kay ba xees na maanaam ngay soppi der bi nga yor képp ku koy def rek complexe nga mooy maanaam man nii ma mel neexuma wala déedéet. waaw mooy loolu lay loolu lay signifié. mooy yàlla ni nga ma bindee daal man dara safu ma ci wax dëgg fa yàlla neexu ma donc léegi il faut ma soppat yi waaw donc loolu mooy li nga xamante ne mooy léegi nag lii waral coow li xam nga coow li waa kii lan lay fiiñee nii ci maanaam lu muy nga coow li coow li as as coow li hmm. dafa nekk coow loo xamante ni hmm. euh, boo seetee jigéen ñu bari moom la ñuy suivre ci internet bi coowul waaw xam maam Ndiaye euh, dafa dafa nekk nit koo xam ni. baa jëloon ndoraan gi tey. Ah, non man damay jàpp ni <laughs> non non <laughs> ma frère man maam Ndiaye dama jàpp ni eh, ci jamono juñ toll nii. moo fi nekk ci jigéen ñi gën a muus. ci la bokk moom maanaam ah. waaw moom ku yeewu la. muus ah ku intelligent luy muusam eh, gis nga jigéen ñi moom la ñuy wër ci internet bi. moom waaw maanaam dafa téye mbir mi gis nga téye bi mu ko téye nag dafay créer ay fem gis nga maam Ndiaye. mook ñi muy xulool ñëpp man pour man ay alliés lañ mais maanaam il faut mu dugal nit ñi ci ab jeu boo xam xuloo xuloo yi ñuy xuloo xuloo yi ñuy xuloo ni yëpp maanaam waxuma kii sax de waxuma kii kii mën na dugg sax moom ci se mën na comp bañ a ko mais Mame Ndiaye moom dafa am nekkoon ci dafa am ñu nekk ci moom li ma comprendre ay mbiram ñoo xam ni kenn par kenn mi ngi génn ku génn dañ koy liggéeyal loolu lay nekk waaw kii waaye kooku dangay gis mu nekk ci beneen business. waaw keneen bu ñëwee nekk ci beneen business bi sama dama doon ko jaay ba est-ce que du Mame xulóoy wi ko bu paree day ubbi ay boutique yoo xam xam a Sénégal dañuy dimbali ci nit maanaam dafa am feeb yoo xam ne dafay am xam maanaam Sénégal boo meree fii ba génn tey jii Assane bu jekk-jekk woon rek daan ne woy ñi ngi may torturer solution kërëb kërëb dem ubbi seen nit ñi daw ne non Assane kenn waru ko def dañuy ubbi ci fekk ne chaîne boobu solution moo ko moom <laughs> eh, ah xam nga seega mm, mm, problème bi mooy yéen da ngeen yéen a ñii dañoo limité intelligence bu Mame Ndiaye c'est que nekk ci kii bi di plané mais Mame Ndiaye. ka doon ragal ji ku góor ba daf mel ni génn na moom <laughs> yaa ngi dégg yaa ngi dégg c'est que. pour te dire góor ka doon ragal ji pour te dire que ni c'est que <laughs> xam nga maa ngi ko doon wax Moodu tey ma ne ko gis nga ma ne ko maa ngi ko doon wax Moodu tey ma ne ko gis nga Mame Ndiaye su paree xuloo hmm. maa ngi anticiper quoi. na ko juboo lay créer dina mhm. juboo ji juboo bi day am moom ndax day fekk place taxaw na waaw ah, dinañ dem di commencer di juboo xam nga fi mu doon nit ñaa ngi daw ci ñooñu di leen jàppale naam wéy parce que kii kii dafa soxor kii dafa def nii kii dafa def nii maanaam chaque jour que li am Ablaye Wade waxoon loolu lay utiliser que ni ñu wax ci yow lu baax que ni ñu wax ci yow lu bon nañuy wax ci yow moom li mu soxla fi mu toll nii mooy ñi ngi wax ci moom comprendre mhm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi maanaam te gis nga nit ñi li ñuy bañ moom lañu nit ñi dañoo soof amul ñi dañuy xuloo rek mais saa saa yoo xëyee moom la ñuy déglu mais da ngay gis ay xale yu ndaw yoo xamante ni bi tey fu ma kii toll fu maam jaay toll loolu rek la ñuy suivre ci mm-hmm. internet bi mm-hmm. Mm-hmm. noonu nii lañ lay waxee naan la diw defoon maanaam dañ ko dafa dem ba mujj gi théâtre yii sax maam jaay leen ëpp doole quand même yow nga defe ne bu ñu demee ba waykat yi di ko way ah. nga defe ne lan waykat yi dañ ciy jaar pour siiw de xaalis. dañ ciy jaar ñoom pour siiw. parce que tey di di ko njëkkanteeg di ko kiiw ak di ko def ni non du question xaalis boo def mais maanaam ndaw si créé na benn affaire boo xam ni nit ñi nañ ko ko nangul man jàpp naa ni loolu ak yeewute la goo xamante ni bi yeewu na ko. kon li Sénégalais jàppee xuloo ci entre ñu doon liggéey mën naa bañ a nekk xuloo. mën na bañ a nekk non exactement non ñu xuloowee kon kii. léegi na bañ a nekk yow gisoo ko góor gi ni mu ah, waxee. nee na bu ah, ma kenn fat ma kenn fat ñu bu leen di àtte pare saay sonoo yow mais xool ci ban milieu lañ nekk. ci lan lañ nekk. dëgg la comprendre nga nga soog a mën a teg yëf yi mën a gam-gamle mais en tout cas pour te dire ni euh, fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla. moo tee gem euh, teg na waaw téye na gem bi. na gem bi gis nga gis nga kii nu mu tëddee moo tee gem bi de. ngaaka xam nga moom laa wax kër ma ne la dafa classanteeg booyu pikin bi. waaw booyu pikin bi dox. mais gis nga bi mu ko bëggee sacrifier ni mu def dafa wéeru ci ñoom maam Ndiaye ak ñu la dem. waaw dëgg la léegi yokk coow li ñu war a coow ci moom. léegi mu daa dee kii ci ay nombre de vie parce que xam nga ah. mbir mi du ay nombre naan ay quatre la quoi xam nga ñoom ñi wax ci affaire rab am na yeneen loo xamante ne bi moom la ñuy nattee mhm. riim ak affaire yooyu ak ni nga xam noonu la tegoo ci bit beeg et ñoom xam nañ ñeneen noo xamante noonu la ñuy nattee mhm. mais yóbbu na affaire bi yóbbu ko ci folklore yóbbu ko ci nombre de vie yu la xool mhm. comprendre nga foofu la tuxal mbir mi ba noppi pour wan que ne ko amul léegi créer beneen ruube nga xam ne léegi fi mu toll nii ñoom maam Ndiaye ak ñooñu ñu ngi ñu ngi koy ruube léegi kee dootul mënatee amati place ci mbir mi léegi mu nekkaat mu yoraat centre yëf yi comprendre nga mu nga xam ne moom léegi mooy xoolaat kan lay kiiwal ak kan lay kiiwal maanaam dafa tëb jéggi booy bi comprendre nga donte jéggi ko mais tëb na ko jéggi ba noppi maasale ko léegi tegal ko loo xamante même bu <laughs> booy bi génne woon ruube ñoom maam Ndiaye mooy tax kii duñ ko de te loolu si si noonu ngaa ko dafa gars yi dafa ay. waa léegi kon léegi yow élément bi macha allah euh, léegi maam Ndiaye mooy victime wala ndaw si. kan kan ndaw si non ndaw si moom dafa ñëw dafa jàpp ni ndaw si moom dund na victime am. Euh, parce que li muy kii kii na ko ba baal na ko maanaam dafa jàpp ni am na beneen histoire bu am. est-ce que war naa jël yaramam bi ñu wësëw teg ko ci internet bi est-ce que du yàq business jàmm. kan yaramam maanaam yaram yi ni mel nii. waaw xam nga li la Omar wax tamit dëgg la. parce que gis nga nit mën na jël dara da ngay ànd ak nit ngeen bokk même jàngoro médecin bi bindal la nga jël garab mu faj ko mu faj ko kii jël garab gi du ko faj. Mm-hmm. wala mu indil ko leneen sax. Mm-hmm. yooyu ay ça dépend par exemple dafa am yoo xam ne naramu nit kii da koy nangu yaramu nit kii du ko nangu comprendre nga. mais c'est sûr que ni bu ah, fekkoonte ni bii ku ko jënd nii na lay def kon du jaay ba nëgë ni. donc am na ñoo xam ne ñi ngi jënd peut-être di ci gis seen bopp. Ah, mais peut-être tamit ci biir ñi ci gis seen bopp mais am na ñeneen ñoo xam ne gisuñu ci seen bopp. te loolu mooy mbir yi. te sooy bu clash na leen de moom Mbayim Ndiaye Savon nee na maire gay day da ngay wut sa benn tiktoker kii jaay ji kii jàmm diw kenn rek la maam Ndiaye Savon <laughs> nee na moo ne moom may jàmm diw waaw jaram jàmm waaye nañ sóoraale nañ sóoraale yaram yaram yi rek non non man ànduma ci xeetam mais moom mi ngi si business am quoi parce que comprendre na ni réseaux sociaux yi jaay ci la ñuy toog moom mu ñëw utiliser réseaux sociaux yi di liggéey liggéeyam vraiment dem tubaab kan man Ndiaye. Hmm. ñu bari am na ñoo xam ne dinañ ko wax. Ah. yow màggal gi mu dem nga dem na dem na kay man kii asal lu ko dal ah lu lu ko teree def xanaa du xanaa du taalibe ah. eh, ku xeesal ku xeesal ku kuy jaay seese ñëpp xam ne yaa ngi jaay xeesal. non moom da koy jaay. ah, ah keneen a ngi jaay leneen jaayee wu ko Touba mais jaayee wu ko fii da ko jaayee keneen keneen a ngi di dem. waroon naa faa yaa ngi dem fa. waroon nga ko fa man kay waykat eh. mbërum làmb jaaykatu xeesal jaaykatu yeneen ak yeneen ku ma si taseel tubaab moom nga xam ne dëgg dëgg la dëjël euh, foofu <laughs> wóor na yàlla daje jàkk yow kii loolu kay sax loolu kay daa am lu ko gën a daa am lu ko gën yomb <laughs> moom mii am na ku muy nuyu chaque jour buy nuyoo ñii muy wax ni kër kooku la ñuy dajaloo man de gisuma leen wax dëgg yàlla. bul dugg maa leen di wër maa leen di wër kër kooka la ñuy dajaloo man nga fay def màggal di leen mhm. fekk dégg nga mhm. kon Adja ñu joxoon dig daje suba incha allah suba nag la suba incha allah suba spécial Cheikh Bara Ndiaye suba Cheikh Bara dootu ko def waaw yëg nañu am na ko ne ci ñun di ñu yërndu di nettaleel Cheikh baara waaye Cheikh Bara bu ñu fi fekkaatee suba ak jàmm nag alaaji dootu ko def ah mais sañ say manche. ah non non non non retour Cheikh da koy préparé. xam nañu mais ñun tamit. da ngeen koy la lay leen di fekk. allez. kii nettali si may lu si rek. may lu si kii nettali du am lu mu nettali. déedéet loolu leer na allez jërëjëf kii ah, kat bu mag mooy bu <laughs> <laughs> euh, am na solo euh, ñu koy souhaiter joyeux anniversaire Boubacar Samba euh, Samba Sadiko Mangalel Bakar Tarama Ramlo Kumba Thiam bàyyi euh, bàyyi Abdallah ak Marie ak Mohamed euh, chéri an ak suka loo dund doyul loo dund doyul Samba sa nit ku baax ki nit ku am ma ki amal jàmm sa dund gi am na njariñ lool ci ñun donc euh, ñu koy anticiper tamit suba bu bétti la di ko happy birthday Mboup Sidi bu suba incha allah daan déggante incha allah donc di wax di ko di leen jaajëfe ñi nga xam ne rek ñoo bokkoon plateau bi ñu nekk ci régie bi ku ci mel ni Alhaji Mamadou Diouf Laye Diallo Mohamed Fadal ak ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Top kon suba incha allah rabbi ajaratu bétti dina ñëw mu di spécial takku ak ki nga xam ne rek moo di Cheikh Bara Ndiaye. KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show.